amaat mbégte bu baax a baax ñëwaat ci seen maanaam magasin bii di Kër Jaraaf ni ñu koy waxee saa su ne muy am tous les samedis seen émission émission bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy xaar di waxtaanee lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllum actualité daa ngeen faral di gis ñi nga xamante ne mooy maanaam ñaari ajaa yi di ajaa asu ak ajaa bi tey waaye tey jii nag maanaam dañoo bër ndax dañoo nekk ci beneen liggéey de même que kii di le doyen Assane Samb daa ngi ko fi gis waaye moom tamit dafa nekk ci liggéey waaye am na beneen doyen moo xamante ne moo ko fi remplacé incha allah di ngeen ko gis si léegi léegi rek du yàgg dara émission bi nag tey nag dafa maanaam am na ñetti poñ yoo xamante ne nar nañ ko waxtaanee bi ci njëkk mooy décision bi nga xamante ne wadda na ci aljuma ji mu jëmal mu soxal ki nga xamante ne moo di Barthélemy Diaz ndaxte dafa defoon maanaam appel fële ca maanaam cour sup euh, maanaam euh, cour suprême gannaaw bu mu euh, bu ñu ko daanee ñaari atu kaso mu war ci juróom-ñaari juróom juróom benn weer rek. waaye juróom benn weer yi tëdd na ko ba noppi léegi daf defoon appel ndaxte dañ nga xool mu fay ñi nga xamante moo di famille défunt bi ci lu toll maanaam lu weesu euh, ñaar fukki million moom nag mu def appel nag tey nag wadd na euh, décision boobu nag nekkul ñu bari ñu ngi koy ñu ngi koy commentaire mu di opposition bi ak ñi nga xamante ñoo di pouvoir bi ku su nekk am na ni mu koy commentaire bokk na ci ponc yi nga xamante ne jot nañ ko waxtaan beneen bi ci tegu moo nekk affaire Ousmane Sonko gannaaw bi juge bi maanaam waxee pour nañ dugal Ousmane Sonko ci liste électorale yi booba tey ñi nga xamante ñoo dee avocat am di même que ay mandataire ñoom daal ñu ngi fëgg bunt bu nekk pour jot li nga xamante ni moo di seen ay parrainage pour mën a déposer li nga xamante tamit moo di seen caution waaye booba tey bunt yi dañoo maanaam dañoo tëj ràpp booba tey ñu ngi yuuxu ndëkk loolu tamit bokk na ci ponk bi yi nga xamante ne dina bokk ci waxtaan bi beneen bi mooy parti bi nga xamante ne moo di PDS di parti démocratique sénégalais ñu war ko waxtaanee ndaxte ñoom 2019 bokkuñu woon ci élection présidentielle yi waaye cette fois ci ni cette fois ci dañoo bëgg a bokk euh, si aljuma ji sax dem nañ déposer li nga xamante moo seen candidat fële ca conseil constitutionnel mu nekk manaam poñ yi nga xamante ne dañ ko waxtaane bu si temps jotee nag daañu waxtaane tamit li nga xamante moo jëm ci wàllum drogue parce que maanaam weer yu weesu ni Sénégal li ñu si jàpp si drogue bari na trop ñu ngi wax daal Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne maanaam plaque tournante de drogue la wala ñi nga xamante ne ñoo di suñu ay forces de défense et de sécurité ñoom ñoo xarañ ndaxte li ñu jàpp tamit bari na trop mu nekk poñ yi nga xamante ne jot nañ moom la war a waxtaane incha allah seen magazine bii di Kër Jaraaf tey am ay invités yoo xamante ne des invités de marque ku ci ciy njëkk présenté nag moo di euh, le président le président Doudou Wade di président groupe nekkoon président groupe parlementaire euh, libéral et démocratique maanaam euh, bu PDS mu di président ñu ngi koy nuyu di la dalal ci plateau Kër Jaraaf. maa ngi lay nuyu Nour di nuyu ñi nga invité ak man ci plateau bi mm-hmm. eh, di nuyu sa téléspectateur mm-hmm. di ñëw ci wuy si ci seen émission Kër Jaraaf. Mm-hmm. voilà keneen que moom nag ku mu ku mu toftal mooy ki nga xamante moo di le professeur euh, maanaam euh, Ibrahima Ndiaye di spécialiste droit privé professeur ñu ngi leen nuyu di dal ci plateau bi. jërë ngeen jëf maa ngi leen di fay bu baax a baax. Mhm. Euh, di kontaan aussi ci invitation bi. Mhm. di ñaan yàlla rek lépp lu ñu fi wax mu nekk njëriñ pour askan bi. Mhm. merci beaucoup. merci beaucoup professeur sànq maa ngi koy wax doyen Assane Samb tey beneen doyen moo ko fi maanaam wuute di Mame Ngor Ngom di journaliste de analyste politique. Euh, Mame Ngor ñu ngi lay nuyu di dal ci plateau Kër Jaraaf. waaw ah, maa ngi lay nuyu Babou. di nuyu mbokk téléspectateurs yi. Mm-hmm. Ah, di nuyu waa Kër Jaraaf. Mm-hmm. Euh, eh, fas yéene cee dugg ci waxtaan wi te yaakaar ne dina amal njariñ askan wi. Mm-hmm. di yaakaar ne dina amal li nga xamante ne moo di njariñ askan bi voilà léegi nag dañuy soobu ci waxtaan bi mais waxtaan bi nag dama koy doore d'abord ci nga xamante moo di professeur di euh, Ibrahima Ndiaye. professeur cour suprême dafa génne benn dogal ci aljuma ji ne euh, maanaam euh, dëggal li nga xamante ne mooy euh, deuxième instance lu ñu dogaloon maanaam daan Barthélémy Dias ñaari at yoo xamante ne de de juróom benn weer kese lay tëdd léegi nag tax na ñu bari di interroger wu maanaam ci ëllëgu avenir politique bi nga xamante moo di Barthélemy Diaz ndax nar na perte li nga xamante ne mooy peut-être mandat mandat électif am yi mu di euh, bi nga xamante ne moo di maanaam député bi ak li nga mairie bi sax ñu ngi koy lam ñu bëggoon am ay ay éclaircissement par rapport ak li nga xamante ne moo di maanaam ñaari mandat bi yooyu gannaaw bi ñu ko daanee waaw jërëjëf li daal Barth quand même loo ci munti dégg lu métti la ci koo xamante ne acteur politique nga boole ci nga nekk un jeune am ay ambition ci wàllu politique mais nag yoon yoon la donc euh, ñun dañuy sibiir li nga xamante ne moom mooy euh, kilifte fu yoon yëf yi foog naa ren la am fukki at ak ñaar donc euh, door a jeex à partir de tey jàpp nañ ne kenn dootul dellu siwaat ci wax ji kenn mënatu cee aussi andi leneen maanaam mhm. Barth aussi munul ñàkk euh, dékku li nga xamante ne moom mooy <coughs> ay sanctions yoo xamante ne moom la loolu euh, wund comme nag moom um, c'est un politique te ñu nekk ci waxtu élection dina baax aussi ñu wax nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy suivre te peut-être comprendre lu ñu bu baax mm-hmm. que lu diis a diis a diis moom moo wàcc ci kaw mm-hmm. parce que bu fekkente ne dañu la euh, fal askan bi fal la mm-hmm. nga faloon ndakaaru moo gën a jafe nekk député nekk jeune commencer sa législature après lu mel nii dal sa kaw mhm. constitution prévoir notamment ci article 61 ah dafa wax clairement que bu fekkente ne da nga nekk ku nekk assemblée nationale ñu fal la bu fekkente ne dañu laa euh, tëj dañ laa daan ci loo xamante ne donc c'est une condamnation pénale mhm. condamnation pénale pour mu xaw a leer tuuti ci wolof bi mooy condamnation bu nga xamante ni mën na la jural ñu tëj la ci kaso nga fay ci amende bu fekkente ne aussi da nga am àq boo xamante ne da nga koo gantal ci nit mu constitué wu partie civile ñu jox ko ay dommages et intérêts ay réparation ou bien juge bi décidé jox ko donc ndàmpaay boobu noonu mm-hmm. beneen bi koy caractériser mooy que ki nga joteel yow da nga joteeg moom ci benn wàll la waaye dañuy tekki ne aussi jote nga ak askan wi yëpp moom mooy intérêt général bi loolu tax procureur di ci dugg loolu tax procureur di ci dugg day am une action civile après mu wëlbatiku am une action boo xamante ne publique lay nekk parce que yow mi nga xamante ne yow yaa tooñ da nga tooñ nit mu nax sa diggante ak moom bul ko neexee mu baal la mais nit ki nga tooñ dafa bokk ci askan bokk ci waaso bokk ci réew mhm. léegi dañu naan kooka fa mu bokk aussi da nga jote ak moom loolu moom moo tax procureur moom mhm. bu xesee ba yegsi ci moom mhm. même ki porté woon plainte bu roccee plainte am mu désisté wu moom danaan askan wi nga xamante ne da nga leen a tooñ à travers li nga def moom daf koy imposer mu continuer action publique bi d'accord mais gisoon nañu la léegi allez-y ci article 61 boobu mu wax ni Euh, bu ñu la condamné ci lu mel noonu yow da ngay ñàkk sa euh, mandat député bi nga nekk assemblée nationale moom moo dal donc euh, Barthélémy Diaz maa ngi wax ci kanamu koo xamante ne am na une vie parlementaire une expérience dina ko mën a confirmer mm-hmm. ci kaw loolu nag am na benn lu tuuti loo xamante ne dañ ko ci dolli rek ñun muy formalité bu nga xamante ne dafay laaj ministre de la justice léegi moom mooy bind président assemblée nationale pour ni ko am na kenn ci sa njaboot nga xamante ne yoon dal na ci kawam ci niñ ko prévaré woon mënatul nekk député mhm. loolu lettre lay doon du doon coupe coup de boo xamante ne daf koy def ou bien jàpp ne président assemblée nationale jàpp na ne information bi ñëw na ci moom rek noonu lay demee il faut formalité boobu dugg mais mais effet du xaw bizarre tuuti mhm. parce que boo gisee ki nga xamante ne moo di euh, euh, euh, yaa ngi koy wax ne kii na ma dañoo war ministre de la justice moo war a maanaam bind ki nga xamante mooy président assemblée nationale pour ñu teg ki nga xamante euh, Barthélemy Diaz mais est-ce que du xaw bizarre parce que période boobu kii actuel ministre de la justice moo nekkoon avocat ki nga xamante ne moo di Barthélemy Diaz est-ce que tamit du nekk benn genre contradiction non non non non non ah responsabilité publique amul moom même bu fekkente ne dafa am yàqiin ne Barthélemy deful waaye dogal bi daanu na ñun ñëpp ñoo ci bokk yam ña fa nekkoon ñi xamoon ñi foogoon ak ñi farak ñi mu neex ñi mu neexul ñëpp dañuy tënk ci li nga xamante ne moom la yoon wàccee suñu kaw. Mhm. looloo tax moom dafa féete nag léegi ci côté exécutif bi côté executif boobu nag li donc li munoon a nekk problème te ngeen waroon ci intéressé wu peut-être yéen journaliste mooy ñu toog. ba jëmmi jamono ñu ne ah ministre de la justice kat ba léegi bindagul président assemblée nationale pour kaawu Barthélemy su boobaa nag yéen di ngeen dem laajte ji lu tax mais président assemblée nationale aussi moom mu ngi toog di xaar gënalul benn député koo xamante ne miinante ngeen ci hémicycle bii ngeen nekk ay xarit et tout ça ngeen toog ba mu yàgg ñu leen diw mi kat bokkatul ci seen biir mhm. mais moom président bi bu jotee nag lettre boobu noonu aussi yoon da koy tënk mhm. dafay obligé considérer que kii bokkatul ci euh, député yi donc remplaçant moom mooy mun a ñëw mhm. mooy donc son suppléant mhm. bu fekkente ne wàllu maire bi parce que beneen bi nga wax ah, nga may ma jàpp rapidement bu fekkente ne wàllu mairie bi la moom maire la dañ ko fal mais dama wax léegi ci ki ma doon discuter ni ko moom bi ñu koy fal présomption d'innocence am la tey woon te présomption d'innocence terewul kenn nga dem élection ñu fal la. Mhm. le problème mooy que la nga defoon jiitu na sa pal bu fekkente ne yoon dafa wax ne bu ñu la kondaanee ci condamnation bii yow dangay ngay loolu bu ñu la falee ba nga toog. Mhm. ñu àtte ba yoon jeexal la mu doon àtte. Mhm. bu fekkente ne daal nañu la la nga amoon ci pal gi danga koy ñàkk. da koy ñàkk léegi nag ni ñu ko bindee fii. ni ñu ko bindee fii mooy andi tuuti ñun ñu mun a expliquer. nit mhm. ñi parce que fële ci constitution bi dañu wax pénal c'est-à-dire que une sanction pénale la ñu wax fii ci code des collectivités yi ñu wax crime mhm. une sanction pénale mun na nekk crime mën na nekk délit mën na nekk peine de léegi lan moo indi nag tey ñuy werante dina dem dina bàyyi mairie bi du bàyyi mairie bi c'est parce que dañ ko sanctionné deux ans donc six mois ferme mm-hmm. donc duñu ko boole ci catégorie yi nga xamante ne moom mooy crime parce que crime mu ngi commencé dix ans jëm kaw. d'accord loolu tax ñenn ñi wax ne donc du perdre mairie bi dafay des. merci beaucoup euh, professeur euh, euh, président président gis nga affaire yi nu mu demee ñàkkul ne yow maîtriser nga bu baax li nga xamante ne mooy texte assemblée nationale yi. est-ce que Barthélemy Diaz euh, ñàkkul tamit li nga xamante moo di euh, code yi nga xamante moo di collectivité territoriale ñàkkul ne maîtriser nga ko yow ban ban jàngat ngay def Barthélemy Diaz dafa nar a perte comme ni ko kii waxee gannaaw bi nga xamante présomption d'innocence la amoon laataa ñu koy pal li nga xamante moo di mairie bi a perte ñaar a conserver ne moo di maanaam euh, mandat bu mairie bi waaw maa ngi lay nuyuwaat di nuyu Ibrahima mhm. ñu ngi soog a gisee tey émission bi euh, maam góor moom ci sama maître yi la <laughs> parce que njàng moom mu ngi commencé ci déglu ak xamuma maa ngi leen di nuyu di leen sant di vous remercier d'abord d'être là avec vous euh, sans bu ma fi jóge dina am lu ma fi bàyyi mais dina am lu ma fi jële jàng naa aussi si suma mentor Ablaye Addo mu ne nit ku lay seet si toujours dafa am lu mu lay indil. Hmm. ki woo dafa am lu mu la bëgg a wax. Hmm. mais amal fulla yoo xam ne bu la jàngalee juróom buy dem bàyyi ñaar. li ma laaj ci affaire procès bi ak fi mu tëdd tey ci bésu 22 décembre 2023. ñu ne lu xew ñu ne dañuy àtte àtte boo xam ne bii dafa tegu ci nit ñu ne kañ la woon ñu ne 2011 xaw ma 2010 loolu mooy jëkk a nekk problème. Mm-hmm. moi je propose enseignant bi ñu ci war a retiré. Mm-hmm. ndax war nañu mën a am lu mel nii ci koo xam ne kii ci fonction bi mu woon fonction élective la am confiance population. procès bi diire un an deux mois trois mois mais mu dem ba ñu génne ko parce que aussi dañ ko génne bul fàtte aussi génne bi aussi négociation am na ci parce que papaam teel na ko wax yéen ngi toog yéen journaliste yi mu ne léegi damay demandé mu génne sama doom fàtte génn ko mu génn mu dugal ko liste député ñu fal ko député ñu suspendre affaire bi donc on a pris du temps temps bi ñu jël pour régler lii temps wu kan la woon est-ce que temps wu justice la est-ce que temps wu homme politique bu ñu soxla la est-ce que temps wu ku ñu bokkal coalition la est-ce que temps bu ñu bokkal groupe la wala est-ce que temps la koo xam ne ki maire la bu am candidat à l'élection présidentielle voilà différentes questions il se pose un problème de justice notre justice n'a pas une marche régulière et bien cadencé foog ñu nangu loolu loolu mooy indi lii et dinañ ci ci kanam parce que posé nga question bi par le ministre de la justice qui était son avocat mmh. oui parce que bokkoon nañu ay façon bokkoon nañu groupe parlementaire bu mm-hmm. taxaw ñu bokk ay position mais gëwuma ne tey ci situation bu nekk nii bu waree poser problème bi régime bi mu mm-hmm. ànd ci la mu àndoon parce que ñoom ay juriste la Euh, gris ak gris noir ak gris cendre yëpp benn ci moom gris gris la rek pour ñun mais pour ñoom pour ñoom du loolu de donc loolu dañ koy jàpp aussi mmh. maintenant maintenant la sanction bi tëdd tey mmh. lan lay indi benn mooy article cinquante et un constitution bi euh, règlement intérieur assemblée dafa reprendre disposition constitutionnelle bi ci immunité yi ba pare wax ne député bu ñu ko comme bu amee condamnation définitive condamnation pénale définitive day ñàkk mandaam te ministre de la justice mooy bind assemblée pour wax ñu retirer ko sur la liste radier ko de la liste dañ koy dindi mën na mën a nekk li tax mu mën a nekk mooy d'abord liste député yi xam nga kan moo ko yóbbu foofu conseil constitutionnel bi ñu jeexalee résultat yi. moo ne diw ak diw ak diw ak diw ak diw fa la ñu yem ñooñu ñooy député d'ailleurs bu ñu koy remplacer nii boo moytul secrétaire général mooy jël décision woo kenn mais jàpp naa ne parallélisme forme du yoon loolu la ñu war a modifier ci règlement intérieur bi la. parce que rien ne nous dit ki woo ndëgëm ci ñi toppoon ci liste constitutionnelle bi war a déet moonte woon ki defoon bu njëkk bi moo war a def bi ci topp. di nga ci ñëwaat sànq sànq ci kanam ci problème direction des donc il faut que ministre de la justice ci boppam wax ne diw dañ ko condamné definitivement autorité de la justice am na ngoonte boon léegi moom mënatul bokk ci liste assemblée génn leen ko xam nga nan la maanaam mooy question bu njëkk ci loolu bu ñu war a toppatoo mooy pourquoi bi ñu ko falee ministre de la justice ak assemblée jëluñu une décision pareille pour protéger les députés wala parce que dafa war a am ci yenn ci yenn dëkk yi bu ñu falee député ci saasi ci saasi ba ñu ubbi assemblée bi mhm. président assemblée nationale ministre de la justice ak président assemblée dañuy échanger mu wax ko ne man ñii ñoo fi nekk comme député lan mooy seen passé judiciaire parce que député bi lañu war a protéger moo tax aussi sanction gaaw loolu moo indi sanction ci sama xalaat ci ñaar ni ñu tëggee ñaari loi yi ñu ne bu ñu ko amee sanction pénale définitive rek moom dañ koy bind préye ko par contre boo demee ci article cinq du code des collectivités territoriales moom du la wax loolu moom dafa la wax ne bu ñu ko condamné pour crime te fii defe naa crime bi gars yi disqualifié woon nañ ko donc amul donc moo lay wan ne ci sama gis-gis man du ñàkk maireem mhm. il demeure maire de la ville de Dakar il demeure mon maire parce que je du conseil de la ville mhm. mais sans doute yoon wax na ne yoon wax na ne mhm. dootul nekk député mais yoon wax ko taxul ah. bu am <laughs> wax ko taxul am parce que pour moo am assemblée yi gugg ko loolu encore moo lay indi ci li xew ci direction des élections xamuñu ñoom ñu koy waxtaan dañu si ñëw léegi <coughs> <coughs> moo lay wane donc assemblée moom yëgugul xew na mm-hmm. xamagul ne condamnation am na yoonam nekku ci parce que elle l'assemblée n'était pas partie prenante au procès mais nag ministre de la justice moom war na comme juste tribunal bi décidé na moom dafa war a bind kayitam ne diw de nekkatul ci lii dal na ko ngoonte bon génne leen ko ci assemblée bi merci beaucoup président euh, Mame Gor yow da nga jàpp lu tax ñu xaar ba mu des maanaam ay weer maanaam ñaari jàpp ñetti weer élection présidentielle ñu génn génnewaat li nga xamante mooy dossier Barthélémy Dias bi teelal ko président mu koy wax léegi 2012 la woon ba tey ñu ngi si atum maanaam 2023 est ce que mën nañ njort ne li Barthélémy Dias doon ragal maanaam doon tiit maanaam euh, parrainage euh, des élus bu mu xamante ne da ngay voté fële ci assemblée mu mu mu nar ko perte est-ce que tamit tamit loolu tamit jox ko maanaam euh, alerté wul woon avant. ah merci Babou euh, di remercier waat professeur Ibrahima. Mm-hmm. ak euh, doyen Doudou Wade nga xam ne moom boo jegee muy wax xam ne li muy wax. Mm-hmm. xam na ko. Mm-hmm. donc ñoom ce sont des hommes de l'art ñoo xam ne nii dugg nañ ci loi yi wax na lu leer. loo xam ne nii c'est d'autorité. man la euh, analyse bi may def ci lépp mag mooy euh, euh, le temps bi ñu jël pour juger ko ba mu egsi fii c'est anormalement long parce que mënoo jàpp mi lool c'est ay côté 2011 <laughs> la woon mm. du man sax ci régime bi mm-hmm. booy xool processus bi ba mu ba ki ki fi nekk président de la république bi mu faloo moom moo ko génne kaso moom moo tax mu génn kaso. Mhm. léegi euh, est-ce que président de la république dans un état normal dans une démocratie waroon na mën a def lool. Mhm. lool c'est une c'est une c'est une grosse question. Mhm. négociation yooyu ba nga xam ne waajuram bu góor dem na ci ba moom mi ngi négocier est-ce que loolu war nañ ko négocier. loolu aussi c'est une c'est une grosse question. bi ñu demee ba ci biir gis booy bu ñuy def historique bi euh, gis nañ ne neexoo nan neexoo nan. ba dem ba neexootuñ. <laughs> bi neexootul euh, mu ànd xalifa Sall ba Khalifa Sall nekk maire moom mu nekk opposant booba euh, tamit euh, loolu moo waraloon Khalifa Sall sax loolu moo waral mu mu ñàkk mairéem mm-hmm. parce que ak caisse d'avance beeg loolu yëpp même bu doon def na justice bi ni muy doxee mm-hmm. dañuy jàpp ne day dox avec avec parcimonie moo maanaam jàpp ñii bàyyi ñii ku ñëw ànd ak man ma ma ma ma ma raayal sa ginnaaw ku àndut ak man ma ma rëq sa digg je pense que loolu euh, perception boobu Sénégal yi am ci justice bi te du léegi lañ ko am. Mhm. Euh, parti socialiste dafa xaroon ñaar euh, ñi Ousmane Tanor Dieng ndam si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm ñi nga xam moom mi nga xam ne dafa àndoon ak ak ak Macky Sall y' avait pas de problème moment boobu Khalifa Sall da ne woon day demal yoonu boppam. ba pare day dem jël mairie Dakar. Mhm. ba gis nga ay responsable APR yoo xam ne nii dañ ne ko da ngay ñëw wala. Mhm. dinañ def tout pour. récupérer récupérer récupérer mairie bi. Mhm. donc loolu yëpp xew fi loolu moo waral tey décision de justice wàcc ñu ciy toog di ci discuter bu fekkoon nous sommes dans un état normal dans une démocratie normale ñu amuñu impression ne justice day féete boor. day wala justice day. def loo xam ne waru ko def kon tey tey bu bu bu condamné Barthélemy Diaz mhm. dañ naan c'est c'est c'est c'est c'est normal donc la la lay am États-Unis di am France di am dans les de justice ak de démocratie même bu dee am na ay manquement foofu aussi kon dañ dañ koy jàppee noonu mhm. mais euh, malheureusement mm, pour pour Barthélemy Diaz Euh, condamnation bi aussi dafa euh, intervenir ci moment boo xam ne ni c'est moment crucial. mais pourquoi ñu xaar ba ba moment bi moom la ngay mooy mooy interrogation bi. <coughs> bon moment euh, booy xool lool lool ci loolaay expliqué nii moment bii ñu ko condamné moment boo xam ne nii ñu sommes à deux deux deux mois d'une élection présidentielle moment bii fekk na moom am na ay jafe-jafe même ci biir opposition bi. Mm-hmm. parce que c'est un moment boo xam ne nii moom ñi nga coalition bi nga xam ne dañ ko moom ñoom ñoom ñoo ko jàppale woon mm-hmm. ak aussi son crédit personnel mm-hmm. ba mu falu maire yi Dakar ba pare falu euh, euh, à l'Assemblée nationale euh, dafa am problème ak coalition boobu mm-hmm. ko ki nga xam ne mooy leader di xalifa Sall moom moo nekkoon président foofu ci ci ci ci coalition foofu noonu jóge jóge ci coalition bi war a nekk candidat à la présidentielle ki nga xam ne bokkoon na ci leader yi leader la sax mooy leader leader coalition bi moom la ñuy wax moom mi ngi kaso. Mhm. te ñoom ñaar ñu doon tuddante doom ndey ak mhm. kenn xamul. donc loolu moo tax contexte bi nii. Mhm. ça risque ça c'est un peu difficile pour lui. mais comme ni ñu ko waxee. Euh, li ñuy wax le maître du jeu. Euh, Macky Sall il est il est il est le maître du jeu parce que moo nekk président de la République mooy l'exécutif moom moom bu bëggoon suba ne ministre de la justice. bindal Barthélemy Diaz dootul nekk député ministre de la justice bind ko Barthélemy Diaz dootul nekk député. loolu aussi c' est une euh, loolu aussi booy xool. Mm-hmm. Euh, sur le plan sur le plan sur le loolu euh, les les jeux sont sont faussés. Mm-hmm. depuis très longtemps fi mu toll nii Barthélemy Diaz sooram ça dépend de de de de Macky Sall. d' accord ça de Macky Sall. ça dépend nag moom nan la koy doxalee. Mm-hmm. digganteem sur le plan politique fii ak Euh, deux mille vingt quatre février deux mille vingt quatre nan lay doxale ak Macky ba mu bàyyee ko fa. Mhm. wala euh, Macky Sall aussi am peut-être. benn kii boo xam ne nii fu mu ko jàppee. Mhm. fu ko jàpp jàpp ko ba nga xam ne da telle sorte que du mën a bouger. Mhm. ba pare moom aussi euh, mu mu mu réduire marge de manœuvre am. te en général te boo jàppee Macky Sall boo mhm. jàppee Barthélemy Dias Barthélemy Dias foo ko téye boo ko fi téye. Euh, forcément da ngay téye waale euh, Khalifa Sall. parce que moom am na aussi loo xam ne nii mi ngi ci moom. xalifa Sall daf ko soxla. d' accord merci beaucoup Mame Goor. professeur Barthélemy Dias gis nañ déggoon si benn sortie ala budda àdduna du neex ba mu maanaam euh, euh, mu euh, dédommage ñi nga xamante mooy la famille famille famille victime bi lan moo ko ci mën a xaar lan moo ko ci mën a topp dañu war a jàpp dem saisir ay biens am wala lu mu war a mën a demee waaw loolu waxu ku mer la ak kuy kuy xataraayu mais yoon moom ala kuliyal bu fekkente ne dafa wax ne nii nii lañ koy defe lii nii lañ koy defe rek loolu moom moo nekk quoi bokkul ak yow li nga bëgg ak ou bien li keneen bëgg su fekkente ne dañ la condamné nga war a fay soit état nga war a fay soit euh, sa natango citoyen moom nga war a fay dafay wëlbatiku nekk créance créance mooy yow da nga ma ameel bor man sa créancier laa yow nga nekk sama débiteur ki nga xamante ne nag daf laa lebal alalam wolof daf ko wax dafa ne kuy àtte bor benn baat rek mooy fay mhm. allez-y allez donc àtte bor ak fay moom mooy àtte créancier ak débiteur léegi nag naka la ñuy def ba loolu am mhm. loolu mun nañu dellu ci recouvrement de créances et je serai très bien à l'aise parce que <laughs> am naa cours bi en master maa ngi def donc ak des étudiants le droit du contentieux du recouvrement alors bu fekkente ne dañu andi firnde ni léegi jeex na yow amel nga diw diw moom am na ñaari possibilité mhm. moom moom yëfam bu ko neexee baal mhm. yëfi yam fa mhm. beneen bi ci topp am na ñaari yoon yuy xàjjaliku nag bu fekkente ne fayeku dafa taxaw mhm. benn yoon bi moom mooy négociation arbitrage maanaam mhm. ngeen dem seet ay arbitre yoo xamante ne dañu def benn consensus seen diggante yéen ñaar naka ngeen koy fay ah saa waay quatre vingt cinq millions bari na mhm. mais nangama nangam nañ la jox lii mu yem foofu loolu arbitrage la loolu du yoonu contentieux bu loolu amul ba ñu dem ci contentieux nag léegi bu ñu demee ci contentieux moom dafa am lu nga xamante ne daa def ko réglé mhm. mu ñëw imposé wu léegi nag ci ñun suñu droit bi nga xamante ne moom la ñu doon exécuté mu nekk le code des obligations civiles et commerciales mhm. alors su boobaa dañuy wax ni nit ki mhm. boo amee di nga fay boo amul di nga fay boo dundee di nga fay boo dee di nga fay léegi loolu moom mooy exécution forcée wu obligation bi nga xamante ne moom am na ko vis-à-vis de la famille de Ndiaga bi war a jot xaalis boobu naka la ñu koy exécuter moom mun na dem mu négocier parce que nga nangu. te mhm. damay fay. c'est une waxtaan ak nit ñi naka laa koy fayee. Mhm. c'est une autre chose donc mun nga def ay moratoire noo koy verser ainsi de suite mun nga am sa benn terrain bu nekk fële nga def dation en paiement. Mhm. mun nga am sa beneen sa oto plus sa kër mbaalee nag leen boo demee ba loolu yëpp nag lijjantiwu leen ko. Mhm. yoon nag dafay ñëw taxaw pour saisir. bu ñuy saisir aussi lépp loo xamante ne mu ngi ci sa tur yow yaa ko moom te bu ñu ko weccee xaalis. mu joxe xaalis bu ñu fayee. Mhm. loolu dinañ ko mun a utiliser. Mhm. mooy indi saisi mobilière dans un premier temps mooy bien am am yi nga xamante ne yëpp saxul ci kaw suuf. ou bien saisie immobilière mu doon ay kër ay terrain ay tool yoo am ak yooyu noonu yëpp mais àla kuliyal bu fekkente ne condamné nañu ko nii ñu ko condamné te waa kër Ndiaga Diouf baaluñu ko fay moom day am mais mais professeur pourquoi à chaque instant bu à chaque décision bu amee maanaam bu war a jóge fi nga xamante moo di cour suprême mu war a laal benn homme politique pourquoi gars yi duñ si mës a am li nga xamante moo di yaakaar parce que dañu yaakaar ne c'est boo xamante ne perdu d'avance waaw mais am na ñu xamante ne aussi dañu naka jekk noonu la ñu mel dañu naan nguur kenn du xeex ak moom mbaa borom euh, baatu neen du xeex ak borom caq xam nga yooyu dañ koy wax ci wolof mhm. mais bu fekkente ne ci ñun la ñun dañu naan lii la la yoon may topp ci sama téléphone bi boo gisoon cas yu yu mel noonu ci nekk kenn mënu la ko expliquer nit ki dana noo kii mënu lu ma ko dara nangam ak nangam mais yow da ngay dem parce que yoon ña fa ne xam nañu seen liggéey xam nañ nan lañ fa tege. Mm. xaalis bi ñu leen di fay ñun ñii ñun ñoo koy liggéey di ko cotiser ñu leen koy fay donc dinañu def liggéey bi léegi nag nga am sa àq ak sa yelleef. war ko dem laaj tribunal toog fi nga toog naan noo borom ndombo la nangam nangam sëriñ bee ko ngemb politicien bee ko ngemb du ma dem yow yaa demul d'accord mais da ngay dem ba yoon wax la ne fii la yëf yem mhm. nga door a xam ndax yoon tegu na ou bien teguwul d'accord merci beaucoup euh, euh professeur euh, président est-ce que yow euh, maanaam cour suprême opposition bi saa bu fa demee dina fa mu déposer mais du ñu am maanaam yaakaar ne dañ daañu am ndam yéen jaar ngeen fa ak peut être euh, ki nga xamante moom seen candidat seen actuel candidat di Karim Wade parce que dépôt bi ñu koy bi ñu koy condamné defa ngeen nga xamante ne mooy euh, man dafa ngeen ay ay ay appel fële ca maanaam cour euh, cour mais teew li ngeen bëggoon amu leen pour pourquoi a chaque instant opposition bu demee am ndam duñ ci duñ ci maanaam duñ ci am yaakaar boo xamante ne yaakaar bu à 100 pour cent du tax waaw xam nga xam nga yaakaar ak li am dafa wuute cour suprême dem nañ fa gañe fa ay procès dem nañu cour suprême ci ay procès gañe ko dem nañu ci ay procès ñàkk ko dem nañu fii ci ay Dakar fii ay manifestation yu ñu tere ñu dem gagné ko ñu tere manifestation ñu dem am ko euh, mën naa ci am lu mu waree bi ci gën a gàtt pour comme maa ngi wakaam ma wax l'arrêt Assane Ba dem ñu ne ko yaa nekkoon ci yoon préfet bi amul woon droit def ko mais bi ko préfet bi. je genre dossier yi comme genre dossier Karim Wade bu Khalifa Sall. ak lu wonte ko da ngay wax ne dossier Karim Wade ak dossier Khalifa Sall. Hmm. mais boo nee en général rek ma dem général. duñ ah. fi jógee dossier juridico politique. <laughs> na clair bu sa hmm. question claire ma hmm. tontu la ci bu fekkee ne dossier Karim bi ma gën a xam. da ngay jàpp ne Karim Wade noonu la mënoon demee parce que objectifu état bi bu muy jóg. moo doon faagaagal ko. amuloon beneen objectif man mii convoqué nañ ma toog naa gendarmerie ba ngoon laaj nañ ma ba laaj ma sama oto papa bu dee quatre quinze oto bu ma may sama papa quatre quinze ñu laaj na ma ko en 2012 ngoonte bon dañ ma bëggoon sonal parce que dañ ñu doon ut ñaar fukki nit ak juróom yi ñu doon anañu est que dañuy dee mais ñu ngi fi mais ba ñu amee ci ñoom la ñu bëgg mais dañ leen bàyyi. mais Karim Wade bañ Karim Wade dafa dem li euh, professeur de wax léegi loolu la def dafa dem topp justice mënoon na bañ a ñëw am na ñu ne du ñu dem nekk ndakaaru ne demuñu moom mu jógee doa ñëw parce que xam na ne moom li mu def xam na ko ak li mu deful mu dem justice def nañ fi ay gendarmerie cent cinquante mille fois kenn deewul kenn dammul mhm. ci reportage yi ngeen def wala déet mhm. mais on a poursuivi bu ñu Macky Sall gagné ci këram ak procureur am ak juge am bi ñu génnee ci yeneen juge fépp la ñu gagné amul fenn fu ñu dem ci àdduna bi te joxuñu ñu dëgg mais topp dëgg nag moo tax tey Macky Sall ci boppam ne Karim Wade de buggul ko ko amnistie te yéen da ñu ko doon xase amnistie ngeen di wut tout la presse on a bugguñu ko. soxlawuñu ko dem nañu sax ba wax ci des choses extrêmement graves parce que dem nañu ba ne Karim Wade nee na boo leen voté amnistie mu démissionné parti bi parce que booba temps honneur am moom. Mm. moom la jiital ci nit ñi ak ci parteem mais am na ci sañ-sañ mais mu topp topp ba Macky Sall moo toog fii ci sa télévision ne Karim Wade nee na buggul amnistie dafa bugg ku ko setal loolu la wax. ma ne ko mais c'est vrai wax na dëgg dafa bugg ko setal mais yow yaa ko setal parce que yaa ko tilimal voilà la réalité léegi lu ñu wax ñu ne créé baaxul amul double degré de juridiction yow yaay chargé de la preuve c'est yow la nekk amul appel ngonte boon dañ koy daaneel remplacer ko leneen waaw boo demee ba ne ba ne ba ne ba ne euh, waa ji Adama mbay bi turam bi baaxul da ngay jëndee aadama bi tudd ko moom Mamadou mooy effectivement tur bi baaxul woon. ngoonte mm-hmm. moom tur bi baaxul. Mm-hmm. tribunal bi baaxul. ni muy taxawee baaxul ngoonte boon da ngay jàpp ne lépp lu mu defoon baaxul. Mm-hmm. loolu mooy réalité mais ñun dañ ko topp ba dëgg dañ ko topp ba am ko. ngoonte moom ñun topp nañ li gën a procès bi gën a dañ ko topp mais dañu topp yeneen procès. topp nañ procès Ablaye Wade. dañu topp ay procès topp ay procès indi xeex am ci réew mi pendant trois mois vous la ab Abdou Diouf génnul këram ba ñu mais xeex bi xeex bi dafa ànd ak waxtaan parce que li mu la wax léegi la ou bien da nga dem contentieux ou bien da nga am sa dëgg mais waa ji ëpp la doole. yow nga naxante ba génn ci am tuuti ci li nga war a am mais loolu lañ def donc ñun. cette bataille set longue bataille devant tous cours et tribunaux yëpp. Mhm. mais li la koy wan rek xam nga mooy lan. da nga tudd léegi xam naa Aïssata Tall Sall nga doon wax bu ne mooy moo doon avocat mais kan moo nekkoon avocat Bourgi. sur l' de de de de de de l' enrichissement mais c' était le ministre actuel l' actuel de l' mhm. moo nekkoon avocat sur tous les tribunaux du monde wax na ne enrichissement illicite baaxul. ba ñu jeexalee procès bi d'ailleurs ci ngoon gi wala lendemain la def conférence de presse ne Karim Wade dina nekk am na droit nekk mhm. candidat parce que droit civique droit yi ñu doon laaj. nañ ko dindi. Mhm. te procureur bi demande ko le tribunal n'a pas suivi. Mhm. wala am na wala amul. mais boobu tax nag jaay doole moo fi amoon. d'accord ngoonte woon ki nga xam ne moo yor. te war a bind assemblée nationale bi tey pour loolu am bu nanguwul a bind loolu du am. Mhm. kii tamit bañ ko ne lii def ko. bi mu ko mhm. nanguwul def amul. amul effectivement eh, Mame Gor est-ce que am nga souvenance maanaam yenn dossier euh, politico judiciaire yoo xamante ne àgg na cour suprême ba opposition bi opposition bi am si gain de cause. non souvenance nag. comme par exemple <laughs> dossier dossiers yi nga xamante ne ñoom lañ gën a tudd fan yi euh, maanaam les les les vingt dernières années. bon de... li ñuy li ma peut-être mënoo fi mënuma fi nekk di di lim ay ay. <laughs> non exemple par exemple mm-hmm. euh, ban ban moo la gën marqué au fait. bon euh, boo xamante ne opposition bi li ma ci gën a xam daal mooy mm, yu demee nii du lu bees Sénégal hmm. ay euh, opposants boo xam ne ni dañ koy néewal doole muy résister loolu du du lu bees li ñu remarqué daal mooy li ñu gën a li seetlu bi di ci def aussi mooy. Mm, rupture bi nga xam ne euh, dañuy dem Ablaye Wade du même même en en quatre vingt huit en quatre vingt treize nit dañ ko accusé woon ne dafa rey nit ba ba ba tëj ko ci ba ba ba jàpp ko ceeg yooyu mais affaire bi lu mu tàng tàng tàng tàng tàng nit ñi dañ doon négocier. parce que même boo gisee dañuy dañuy wax naan euh, boobu président français bi fi nekkoon da ne euh, un opposant en prison moom prisonnier politique lay nekk. moom lool loolu la jàpp maa ngi lire euh, les mémoires de du professeur Abdoulaye Bathily mu ko mu ciy expliquer mhm. euh, processus bi ni ñu ba Abdoulaye waa di génn nag et tout donc lool mën warta mën a ñàkk ci ci ci ci ci démocratie euh, loolu moo tax sax boo boo demee ba léegi da ngay wax ne président de la république ak opposant bi ki ñuy wax opposant numéro un mënoo imaginer ñu toog benn table di waxtaan ci dans une démocratie mm-hmm. loolu c'est une malhonnête mm-hmm. démocratique mm-hmm. parce que dans une démocratie ak lu mu tàng tàng tàng tàng démocratie comme akara la daf il faut nga ñemee kaan comme ni ma koy waxee mais lu mu tàng tàng lu discussion yi vive vive ak lu contradiction yi am divergence yi nit ñi war nañoo mën a toog te autour d'une table waxtaan ci ci ci yu bëri mais loolu bu amul ci démocratie rek léegi amul léegi nag loolu yëpp nag li koy waral mooy c'est une euh, c'est le choc des des extrêmes parce que opposant bi day toog ne euh, ñii dañ maa bëgg a faagaagal. Mhm. donc man euh, damay def tout pour kenn du ma rey. Euh, pouvoir bi aussi ne kii dina dama koy faagaagal même su ko waxul posé na ay actes yoo xam ne nii wane na moom ku mu bëgg a faagaagal da faagaagal dañuy wax naan le pouvoir en Afrique tout ce que le pouvoir veut Dieu le veut quoi mën nga ko wax en Afrique particulièrement Euh, Macky Sall dafa jàppoon ne ba mu nee depuis ba mu waxee en 2015 ba mu nee day réduire l'opposition à sa plus simple expression il s'est donné les moins de le faire mm-hmm. euh, gis nga jamono jooj ay 2015 parti démocratique Sénégal ñu ci bëri mm-hmm. dugg nañ kaso mm-hmm. ñi dugg nañ kaso ñi ñi mu xam nga ne mënu leen dugal kaso am na ñu intimidé ñi ba ba parti ba lu ci bëri jaxasoo ci am na ñu ca nekkoon nag di résister ko ci mel ni euh, président Doudou Wade mais ñu ci bëri ñëw nañ fekki ko. Mm-hmm. boo demee ba vingt cinq personnalités de ñu ne ay vingt cinq personnalités ñoom lañ waxoon ne traque au au bien supposé mal acquis mais booy xool vingt cinq personalité yi am na ñoo xam ne ni ñoom ak ñoo ngi conseil des ministres koo xam ne nii ñu ngi conseil des ministres ba pare jàkkaarloo ak juge ba nga xam ne moo nekkoon CREI yi mm-hmm. xam nga loolu aussi day day day nuru loo xam ne nii booy xool. da nga naan da am sélection quoi. waaw oui c'est c'est une c'est une justice à double vitesse justice boo xam ne nii peut-être euh, dana le pouvoir exécutif a ngi nii le pouvoir judiciaire et le législatif mais booy xool da nga naan benn pouvoir rek moo am. Mm-hmm. mooy le pouvoir l'exécutif. kii mm-hmm. fait ce qu'il veut faire. Mm-hmm. donc xam nga loolu loolu mooy tax euh, divergence yu bari di am ba Cour suprême wala faneen ak faneen ak yeneen juridiction yi bu fay opposant di dem. ñu bëri dañuy ñaaw xel ne. Mm-hmm. Mm-hmm. peut-être y a quelque chose derrière. Mm-hmm. parce que man tey euh, ki euh, jugement euh, Barthélemy Diaz man dama jàpp ne dama xamul woon nan la bon je suis pas bon si comme ay professeur Ibrahima mais man xalaat ma woon ne. cour suprême day casser décision man mosuma ko xalaat. mosuma xalaat cassation ci ci ci ci mbir yi mais fi mu toll nii def na yoon. ñu ci bëri dañuy jàpp ne peut-être euh, nguur gi ñoom ñoo bëgg a faagaagal Khalifa Sall mm-hmm. euh, jaarale ko ci Barthélemy Diaz mm-hmm. alors que euh, peut-être même les juges ñi ko def mm-hmm. danoo xool yoon xam li ñële defoon amul dara loo xam ne am na rëq-rëq ñu ñu ñu appliqué ko donc loolu mooy war a ne buñ bëggee réew mu dem il y a des piliers il y a de la démocratie piliers yooyu nit ñi dañ ca war a jàpp mooy justice bu dëgër mooy une société civile bu dëgër mooy une presse li ñuy wax nii mhm. presse boo xam ne nii dafa dëgër mhm. une presse vraiment indépendante une presse professionnelle et puis ak opposition mhm. opposition mënta ñàkk ci ci ci ci démocratie ak nu mu mën di demee dafa war a am opposition mu nekk fa mu teg fa parce que opposition bu amee loolu mooy tax euh, nguur gi peut-être il se il sent surveillé euh, nit ñi aussi am nan yaakaar ne dëkk bi du convergence partout mm-hmm. euh, nguur gi lu mu neex lu ko neex rek ñu ne yar fa bu laaw loolu loolu je pense que c'est une très bonne chose dans une démocratie mm-hmm. donc loolu moo war loolu moo indi indi débat yi yëpp te débat suñu débat yëpp mm-hmm. dañ ko waroon dépassé au Sénégal ay justice ak ay opposition ak yoon wax nag yoon waxul loolu dans les démocraties qui se respectent débat yu mel nii amatu donc débat yi yi gën a ñor fi toll nii moo nekkoon débat comment comment pour se développer comment faire pour utiliser nos ressources euh, naturelles comment faire pour que l'éducation soit véritablement une éducation comme pour l'uni pour que l'université marche je pense que loolu moom moo gënoon a nekk ci ay débat heure bi ñoom ñoo ngi ci presque école primaire démocratie te loolu je pense que c'est pas bien pour la pour le Sénégal merci beaucoup euh, Mame Gor léegi nag dañuy ñëw ci ñaareelu poñ bi moo jëm ci li nga xamante mooy affaire maanaam euh, Ousmane Sonko jëm ci wàllum euh, parrainage bi parce que depuis boobu ba tey euh, euh, professeur ginnaaw bi juge bi coon génn li nga xamante mooy décision yi pour ñu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi booba tey mandataires yi avocats yi ñu ngi buur fu nekk pour maanaam récupérer seen ay fiches de parrainage mais ba tey dañu tëjal buntu yi est-ce que jàpp na ngi loolu si si réew démocratie loolu yoon la. waaw question boobu aussi am na leen lu ma si bëgg wax te jot naa ci waxtaan ak ay gis nga DGE. deful dindiwul DGE du bind nit DGE du ñoom bi nga xamante ni le juge dans un premier temps et puis beneen bi ci topp li ma bëggoon njëkk wax am na ñuy yorante ndax juge bi li mu def yoon la am yoon juge su ko neex def juge buy jugé buñ ko joxee dossier lii moo ko intéressé lan la loi bi bind ci kayit bi lan la am comme élément de preuve ak moom lan la jàpp ci akulaay taala mm-hmm. loolu rek moo ko tënk bu ko neexee mu joxe loo xamante ne beneen juge bu ñëwee da koy dindi mais moom joxe na donc li juge bi def dañuy jàpp ne def na son travail il a fait son travail est-ce que le travail est bien fait est que le travail n'est pas bien fait comme am na pourvoi en cassation am na ku ko féete kaw kooku moo koy wax ndax jaar na yoon ou bien jaarul yoon mais moom kenn amul droit sëkk ko ci dara li mu waroon a def def na ko mooy jàpp li mu jàpp ne mooy décision mu rendre ko mooy le le le le juge bi nga xamante ne mooy con. mais est-ce que décision war nañu ñu ko appliquer aussi. non doucement doucement doucement léegi nag dafa am leneen lu am mooy ko juge dafay juger dafay juger mais mënu la obliger DGE mu exécuter li nga xamante ne moom mooy décision mu ngi mel ni yéen ñaar ngeen am problème. kii amel la xaalis nga yóbbu ko ci yoon yoon daf lay laaj ana firnde yi wane ne moom amel na la xaalis nga andi bon de livraison yeeg affaire yooyu yëpp ba mu yem ñu ne kon yow jox nañ la ordre nga delloo jàmbur li ko amee mais juste bu pare na liggéeyam foofu hmm. moom bu la fayee bu la fayul am na feneen foo war a mën a dem. Mm-hmm. mais juge bi du fa nekk yow topp ko naan fayal fayal fayal mbaa juge bi jóg dem fekk li ci këram ainsi exécution du liggéeyu juge bi juge bi moom li mu wax wax na ko ba pare DGE aussi nekk woon moom moo bind soo Sonko ci liste yi DGE est-ce que ko DGE gi dindiwu ko ci liste yi donc bu fekkente ne am na koo xamante ne moom moo war a exécuter moom mooy. hiérarchie bi nga xamante ni ñoom ñoo féete kaw Ousmane Sow ñoom ñoo féete kaw DG te joxe woon instruction pour que ñu dindi ko beneen bi ci topp lan moo tax ñoo ñooñu defuñu ko loolu aussi c'est une mm-hmm. parce que aussi loo ci munti de procédure bi jeexagul procédure bi jeexagul à chaque fois bu fekkente ne dossier dañ ko initier moo am jugement jugement boobu am par exemple ñu application double degré de juridiction comptable ma damay jàll ci beneen euh, beneen beneen beneen beneen niveau de juridiction loolu dañuy wax ne décision définitive jëndagul. mais en matière électorale en matière électorale est-ce que affaire yi waruñu waroon na gën a mën a bar. waaw loolu ba tey mën na nay d'autant plus que xam nga lu tax sax man ma nekk koo xam ne loolu ça ne me gêne pas. d'autant plus que yow nga andi de parrain te sa candidature amul njëriñ donc dem uti parrain ba noppi ñëw validé wuñu sa candidature. say parrainage amatul njëriñ dafay tombé à mhm. mais bu fekkente ne DGE dañu ko bëgg sikkal bu fekkente ne DGE dañu ko bëgg a sikkal DGE mhm. e e deful dara mhm. DGE dañ ko jox list bu nga xamante ne tur soo ko nekk ci tur boobu noonu list boobu mu téye ba léegi tur soo ko nekk ci bu ñu ko andilaatee beneen liste boo xamante ne bu liiree tur soo ko nekk ci waa ji bu ñëwee ñu jox ko. d'accord merci beaucoup professeur euh, président. est-ce que euh, d'après li professeur expliqué est-ce que kon ça veut dire que ñi nga xamante ne mooy avocats yi mandataires yi di ñëw DGE matin midi soir pour récupérer seen ay fiches est-ce que yoon bu ñu war a jaar fa ñu war a jaar est-ce que waruñu jaar maanaam si yoon bi peut euh, dem DAF ministère de l'intérieur pour maanaam notification gars yi appliqué mu wàcc fi nga xamante mooy DGE pour gars yi mën leen jox seen ay parrainage est-ce que yoon mu ma baal rek. ma jox la benn exemple bu gàtt rek benn point laa lay fàttali. allez ci li nga li nga jëkk wax ci procès yi parce que dama laaj après nga laaj kii. mën na yëg ne Sénégal xëy nañu si benn suba. Mm-hmm. di arrêté waa PDS ne dañuy attenter à la sûreté de l'État parce que dañuy fekk ay armes libyennes ci toolu Ablaye Wade ñu dem gas ko gis ko génne ko ñëpp di ko gis. Mm-hmm. ay libyens ñëw wàcc Dakar Air Afrique ñu jàpp leen ci passerelle bi mais xam nga atte yàlla moo gën a wóor far libyens yi billets yi billets yi. ka ko jaay ka jaay billet yi Air Afrique doomu Ablaye Adda la mu ngi fi ba léegi agent Air Afrique xam nga ki commandé billet yi kan la woon Jean Collin hmm. tribunal fay loolu moo lay wan na mën naa maintenant ma dellu si sa waxtaan affaire G2 gis nga lii professeur wax léegi dama ciy dellu ci ci lu gën a yomb hmm. ñoom dañuy jàngale li ñuy wax parallélisme de forme hmm. loo fi tegul mënoo ko teggi mm-hmm. loo fi tegul rek waroo ko teggi donc ki teg mooy teggi mm-hmm. gis nga boo bañee coow ba ñu war a añ aaw bi aye ñaareel bi ñëw di teggi boo moytul dinañu xuloo mm-hmm. dañuy reyante ci bool bi ku nekk na def yëfam il y même un je peux dire je ne comprends pas comment toute la classe politique notamment la société civile xëy suba attaque ji DGE c'est comme si un complot a été organisé contre la DGE pour protéger une autre administration léegi lu ñuy wax fii ne Barthélemy ñu ne ministre de la justice mooy bind assemblée nationale. Mm-hmm. waaw mais ministre de la justice am na courrier bu ñu boo yëgul bu ma yëgul mais bind na DGE mhm. wax leen ne diw lii moo ko daal génne leen ko mhm. loolu am na mhm. waaw DGE moo bindoon CFM na ko dindil te ci fourniture yi mu ko jox am na gomme am na éponge mu dindi ko. ba léegi chef bi lu muy xaar gannaaw bu ñu jugé ba pare. non attends defar nànk rek ak seguñu foofu bul tëpp li li ki wax léegi ñu ñëw ci DGE DGE ne leen mais te ab am na lu ñu waxul ah dañuy toog fi naan DGE nangam mais en dehors yooyu ñuy gisante noonu am na ci ñoo xam ne seeti nañu DGE le matin wala la veille ba waxtaan ak moom tu sais fii Sénégal lañ nekk parce que ñun ñëpp dañu xamante kii ñu ngi soog a gisee gannaaw ëllëg li ñuy waxtaan fii am na lu ma dégg ci moom moo ko soxlaa ci moom lay jëm am na wala amul mm-hmm. parce que xam na xam naa am na da ci xam-xam donc DGE dañ ko buggoon tooñ mais moo tax léegi est-ce que awatee nañ DGE waaw lu tax ñu bàyyi DGE nga ne ñu ngi dem fu nekk. mais parce que dem dem nañu daaf. waaw mhm. ah, mais waaw ah, mais fa la woon njëkkee daaf nu mu tuddu direction des fichiers. de l'automatisation des fichiers. des fichiers ñun ñëpp fu ñu nekk du ci fichier bi. Mhm. ñu ngi juum sax naan lan xaw ma parrainage citoyen c'est pas un parrainage citoyen c'est un parrainage des électeurs. parce que citoyen yi nekkuñu ci fichier bi fichier bi mooy mode de contrôle bi mais comme booba léegi ñu ngi dox te àgguñu fi ñu jëm mooy dañuy réer kuy dox ñetti fan biir Dakar te gisoo ki ngay seet te xam adresse bi mooy da nga réer adresse bi ñu jox baaxul. mais président maintenant ngoonte bon ñoom dañuy juum. waaw waa mooy avocat yeeg mandataires yi. mais dañuy juum dañuy juum. Mhm. dañu juum et puis mandataire bi kañ la mm-hmm. euh, le directeur de la caisse de dépôt et de consignation là wax naan dossier PDS matul dafa moo tax la moo tax léegi ndek décision euh, maanaam justice bi maanaam euh, ministère de l'intérieur ba léegi maanaam appliqué guñ ko mais kooku xam nga loolu nag yow comme xam nga ko da ngay jël sa micro ëllëg nga dem seeti ministère yi ne ko pourquoi yow waxuloo dara nangam ci affaire bi loo ci xalaat c'est pas nu ñun mën nga ñu laaj lii mais ëllëg da ngay woo football kat no ajaa ana mu dem na fële yéen da ngeen di jóg ngeen dem seeti ko wala ngeen daf ko ci Korité wala Tabaski ne ko loo xalaat ci nangam ndax c'est pas à de de répondre à ces questions d'accord président voilà, pour compléter loolu mooy que euh, décision de justice bi dafa génn jour bi décision de justice bi génnee ak jour bi ñu koy notifié partie je crois que 48 heures la war a def à partir de ces quarante huit heures là ñi nga xamante ne ñoom ñoom moom dossier bi mooy avocat nguur gi ñoom dañuy am fukki fan yu nga xamante ne am nañu droit ñu liiraat décision mm-hmm. de justice bi seet ci lu jag lu jagul ay porox ndoll yoo xamante ne mun nañ jaar mais dix jours lay doon. mais ñu ñu ngi xaan xaani ba léegi de. non bu leen neexee mun nañu toog ba dernier jour bi mm-hmm. dernier jour bi bu leen neexee mun nañu toog ba dernier jour bi mhm. ñu dem déposer ko du tere ñu ngi ci biir délai parce que délai yooyu aussi dafa am solo ci li nga xamante ne moom la conseil constitutionnel war a def le 27. d'accord Mame Ngor yow ban analyse ngay def ci maanaam situation bi est-ce que tamit bu nekkee en matière électorale est-ce que tamit affaire waruma warul gën a mën a bar par ku nekk xam maanaam euh, quel pied danser. li li ma ci wax daal mooy li tubaab yi wax toox yu boobu. Mhm. mooy loo xam ne ni c'est une confusion totale te man dama jàpp ne lii infantilisa infantilisation de la démocratie sénégalaise la quoi man noonu laa ko jàppee parce que heure bi waroon na dépassé fu naan dañuy dugal ak dañuy génne ay opposant bi war naa dugal ak war warul génn mhm. euh, loolu dañ ko war a dépassé parce que bu fekkee dañuy bu ñuy ñuy def li ñuy wax la danse du scalp un pas en avant un pas en arrière loolu je pense que du tax mbir mi mbir mi mbir mi dox mhm. Euh, problème bi man analyse bu simple laa yi dafa ah. dama jàpp comme ni ma ko waxee woon nguur gi ñoom seen objectif mooy def lépp ngir Ousmane Sonko bi ñu fi wax. Mhm. nekk candidat. lool mooy objectif bi. Ouais. c'est clair. loolu moom c'est leer na je pense que leer na sax ci bopp Ousmane Sonko leer na aussi ci ay ñoñam dama jàpp ne sax <coughs> même li ñuy def nii. stratégie la boo xam ne dañ koy déroulé ñoom aussi. Mhm. parce que dañuy jàpp ne euh, fekkee yow dem nga Ziguinchor ñu jox la ñu jox la yoon. Mhm. nga dem ñu yóbbu la cour suprême cour suprême yóbbuwaat la tribunal Dakar tribunal def la jox la yoon. lool aussi animation politique la c'est important et puis man na aussi arrosé la colère. Mhm. parce que nit ñi bu jafee ne. Euh, affaire bi flagrance bi. de plus en plus. dañuy jàpp day day day fës. Mhm. bu ko defee lool aussi citoyens yi ak ñeneen ñoo xam ne ni sax peut-être ànduñu woon ak ñoom dina ne ah ñii daal kon ñoom liñ bëgg moom mooy euh, kii bañ bo bañ a nekk candidat léegi même bu kii nekkul candidat peut-être war nañ cee ñoom dañ ciy tiré ay bénéfice ay bénéfice ci lool loolu loolu lool loolu loolu stratégie stratégie boobu la. Mhm. li leer mooy. Mhm. ñoom dinañ def lépp pour du nekk candidat ce qui n'est pas du tout man ce que je juge un peu mm-hmm. euh, anormal parce que en démocratie surtout à élection il faut euh, il faut nga boole ñëpp ku xam ne war na mën a nekk candidat mu nekk candidat ñëpp nekk candidat comme ni ñu ko fi daan amee ñeneen ñi neen ko fi daan nin fi daan defee ay ay 2000 ak ay yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen période yi nga xam ne ay élection présidentielle moo fi doon organisé euh, ku nekk ku ba ku war a nekk candidat ne candidat koo xam ne ni matul ay parrain ñu xam ne matul ay parrain mais damay ragal dans une démocratie parce que la démocratie aussi c'est le gouvernement du peuple nga jël ñenn ne du nekk candidat jël benn parti ne du nekk candidat partem aussi Euh, kenn du fa nekk euh, candidat à la présidentielle nga bëgg exclure ñooñ ñëpp ci présidentielle 2024 est-ce que mënul jur ëllëg leneen mhm. même bu fekkee kaneen moo fi nekk euh, président président de la république est-ce que mënul jur beneen est-ce que nous nous sommes nous ne sommes pas de différer une crise mhm. parce que ak nu mu mën di demee comme nga ne da koy xañ mu nekk mañ a nekk am na aussi lu mu représenté mhm. parce que bu représenté wul woon dara ba ñoom ci am ci ñoom ñoo xam ne ni dañ ne kii bu nekkee candidat day gagné. da nga ragal mu doon après ay fayantoo après. non mais mais man waxuma la fayantoo mais mën na am mais président ku fi ku ku ku ku jiite réew Sénégal da nga boo sañoon da nga koy jiite ci ci dal. mais boo ko doo ko jiite aussi ñu lay défier mu am ay défiance parce que ñoo xam bu bu bu ñi nga xam ne ku xam ku représenté dara ci élection ci réew mu wóor na leen ne yow war bu yow sa ñooñ am na ñoo xam ne nii dan ne la ñoo ngi wax naan. kii bu demee élection day gagné. yow comme nga bëgg koo xañ mu dem élection man je je comprends avec la loi et tout parce que loi moom loo ci bëgg def man nga ko cee def. loo ci bëgg a def man nga ko cee def. Mhm. Euh, euh, am noonu lañ def ba écarté Karim Wade noonu lañ def ba ay Khalifa Sall ak ñooñu ñëpp ñu écarté leen mhm. noonu mën nañ ko def. ba écarter euh, Ousmane Sonko. mais ëllëg est-ce que li muy jur euh, dina dina leen amal njariñ. loolu mooy problème mais parce que Khalifa Sall écarté nañ ko écarté nañ. Karim Wade mais gis nga lim jur assemblée nationale. Mhm. gis nga lim jur faneen ak faneen ci collectivités locales yooyu. Mhm. donc est-ce que boo fi falee président boo xam ne nii euh, écarté nga opposant yi surtout l'opposant bi ñu wax ne c'est l'opposant numéro un. Mhm. moom loolu lan wax. et puis am na yoo xam ne nii wan na wane ne peut-être. moom mooy nopp opposant numéro un waaye kooku nga bëgg ko écarter ci ay mm-hmm. élection est-ce que mënul indi ay ay jafe-jafe ëllëg ëllëg je pense que loolu aussi loo xam ne nii war nañ ko teg ci table bi mm-hmm. buñ bëggee aussi euh, waxtaan bi gën a gën a gën a neex pour waxtaan bi gën a neex professeur mm. est-ce que kon mën nañ jàpp ne lenteur yi nga xamante ni yëpp moo am ci ci mbir mi mm. est-ce que c'est fait à dessein pour euh, a objectif final bi mooy xañ ci yi nga xamante mooy Ousmane Sonko bañ a nekk candidat bon loolu sama tontu de tous les jours rek laay tontu ça veut dire que justice moom buy def liggéeyam sooraalewul ndax yow li muy def intéressé na la ou bien intéressé su ma ñëwee damay wax étudiants yi souvent en général neleen leen le cours de droit la c'est pas le professeur c'est le droit droit nag neen na boo ko toppatoo moom mu ngi lay toppatoo boo ko toppatoowul moom mu ngi lay toppatoo mhm. ça veut dire que moom buy fekkente ne mu ngi dex dox li muy war a def toppatoowul ndax li day am ay conséquences économiques ndax lii dafay am ay conséquences judiciaires ou bien dafay am conséquences sociales yu nga xamante ne war na ko mun a tere def loolu non non non non juge bu tiimoo loi bu nga xamante ne loi bi jubul ñëpp d'accord nañ ne loi bi jubul CREI yi par exemple ni ñu ko defe woon juge bi àtte nekk foofu mm-hmm. li ñu bind ci kayit bi rek la mun a tënku munul tënku ci xalaatu boppam ak ne lii waruñ ko woon defee nii nii lañ ko waroon a defee li loi bi wax loolu lay def loolu moom moo tax bu fekkente ne tey dañu ne juge yi ñu ngi nekk ci dossier bu fekkente ne kaawu Karim la Karim la kontre état du Sénégal bu fekkente ne xalifa Sall la xalifa Sall la contre état du Sénégal mais bu fekkente ne Ousmane Sonko la nekkul Ousmane Sonko contre état du Sénégal c'est Ousmane Sonko contre Adji Sarr loolu moo ñëw ba fii te waxoon naa ko fenn. ne leen problème bi yëpp kenn kese moo ko andi muy Ousmane ko ci boppam lii xew nii yëpp c'est de sa responsabilité il est le seul à s'être causé autant <coughs> de soucis nit mënuloo nekk ci réew yàlla def na ba ma koy wax fii je crois que da ngeen changé salon mais fii laa toogoon ci émission bu def grand plateau ma ne ko képp ku la xelal ne la bul dem wuy ji justice sa noonu la bu nekkee dafa nekk ak yow nekk sa avocat génnee ko ci pool bi bu fekkente ne da nekk ak moom mu nekk sa xarit ne la bul wuy justice moo lay lor justice dañ koy affronté xam nga lan moo tax euh, baak euh, nu mu la tuddati Barthélémy Diaz loo mu munti doon ak lu ngeen lu cest à bu ngeen àndul itam di nga ko reconnaître lennam muy dafa am fit et il fait face à tout ce qu'il fait les conséquences da koy assumer mais boo taxawee ni nañu tëgg procès bi loolu laay yàkkamti nañu tëgg procès bi ñu tëgg procès bi nga dem Ziguinchor toog fa ne dootuma taxaw ci justice su Sénégal garde sa nationalité sénégalaise nekk ci biir territoire sénégalais bi ba noppi justice wala nga ne du ma ñëw mais doo tere justice daf liggéey bi ñàkk a ñëw boobu mu ñàkk a ñëw moo indi coow bii nii yëpp parce que bu ko andee woon tu sais en matière criminelle sa avocat daf lay assister mais mënu la représenter looloo taxoon Clédor Ciré Clédor li ne may leen ma vingt quatre heures ma indi ko mbaa ñun ñëpp ñu mu mu libéré ñu ñun avocat yi ñu bàyyi ko. parce que boobu avocat yi ñëw nañu pour que affaire bi am am na fu ñu teg seen tànk ñoom ñoo ko xam mais moom moo ne dootuma taxaw ak justice Sénégal mm-hmm. léegi bu fekkente ne bravade boobu yow da nga ko def ba lii xew ci tey mm-hmm. mais qui est responsable mais d'accord ah, déroulé nga li nga xamante moo di film bi mais tamit bu ñu wee bu ñu ko weesoo mm-hmm. ba am am ay ay ay ba ñi ngi di maanaam euh, dafay appel ba yoon dugg ci loxo ba yoon def li nga xamante ne ñu ngi ci ñu ngi ci maanaam élection présidentielle ba gars yi dem nañ ci beneen étape ñu wax ne Ousmane Sonko war a mën a nekk éli maanaam euh, mais d'accord pareegul mais xaar xaar ma jeexal mhm. léegi est-ce que tamit bu ñu waatee ci beneen étape gars ñu bëgg mu bëgg a war a nekk maanaam euh, euh, candidat war nañ mën a soulever li nga xamante mooy mooy ancienne histoire bi ban enseignement li nga expliqué léegi léegi début li nga xamante ne moo affaire Adji Sarr beex. non man maa wax loolu man maa wax ni. lii ñiy coow dañuy coow waxu contumace parce que li andi problème mu radiation bi mooy que dañu ko condamné par contumace bu ñu la condamné par contumace dañu lay dañu ne dès que euh, procédure formalité wu publicité yi bu ñu ko defee ba pare jàpp nañu ne yow déchéance day dal sa kaw maanaam dañuy baare sa tour donc ci liste électeur mani li andi waxu contumace xam nga mooy lan mooy le fait nga bañ a ñëw tribunal mais bi tribunal bi commencé le matin mhm. ba bi muy jeex ci ngoon gi Ousmane bu fëggoon dugg ci biir buntu bi contumace dootuñ ko wax d'accord c'est lui qui a cette situation la léegi nag li nga xamante ne moom moo nekk nii aussi dama bëgg am lu ma bëggoon a tontu dugal tuuti ci li nga wax gis nga bés bu ñu fi joxee privilège boobu noonu aux politiciens di nga gis ku def lu ne lu ne weng ba ñëpp di ko coow mu bëgg mu génn ci mu dem présenter wu ji ci élection législative euh, élection présidentielle baa mu benn élection le politicien est un citoyen avant mhm. bu fekkente ne tu es concerné par un dossier judiciaire c'est le dossier judiciaire qui prime sur tout looloo tax tubaab yi ñoom dañu am benn culture ci seen biir dès l'instant que ñu taqal la ci yëf mbaa ñu tudd la ci yëf rek da ngay démissionner mettre à l'aise tout le monde léegi nag dem lijjanti ji wàllu judiciaire bi parce que loolu moom moo lay topp ba ci say sët alors comment est-ce qu'on peut maintenant dans un pays dire que way oui, il faut organiser une élection inclusive dugal ci ñëpp alors que ñëpp ñooñu am na ci ñu nga xamante ne dañoo am problème ak ñeneen il faut régler sa problème là avant ñu dugg si président yow danga ànd comme ni ko euh, professeur waxee maanaam nguur gi dafa war a organiser maanaam une élection inclusive boo xamante ne ñëpp ñoo ci bokk vous danga si ànd si maanaam euh, euh, argumentaire boobu. c'est de la folie. inclusive mooy les dix huit millions de Sénégalais la ñuy bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu ngeen wax da ngeen toog seen plateau yi ni inclusive mooy kenn du des. ñi bëgg a bokk bokk ñi bëgg a bokk. Ah, ñi am waaw waaw des na war a bokk ñu des na. Mm-hmm. nañ def ndànk rek ñi bëgg a bokk ñi bëgg a bokk bari na. sama doom bi jigéen bi quatre ans la am bëgg na bokk. non président waxuñu président waxuñu président déglu ma nag. danga ma laaj danga ma ne incluse danga ma ne ñëpp dina bokk ma ne la am naa doom bu jigéen barki ma ñu ngi def reportage ne ko lan nga bëgg a nekk mu ne président de la république mais mënu ko nekk ngoonte da nga naan ñii ko mën a nekk te bëgg ko nekk ou bien dañuy làkk wolof wala tubaab wala làkk ju leen donc inclusive amul fenn man mënuma nekk président de la république j'ai soixante-dix-sept ans mm-hmm. dàq na ma mm-hmm. dàq na Moustapha Niass dàq na Ablaye Wade moonte mënu nekk inclusif da ngeen naan dañ koy organiser match bi du ñëppay bokk yenn saa yi sa mayo day xotti sax ñu ne dootoo joué. changé ko sa godaas yàqu nga def ci pont ñu ne doo joué. am na wala amul nga takk lam ci basket bi ñu ne doo joué te joueur nga am nga licence yaa ngi jippe dañ lay génne. donc dafa am ay règles nit bu bindee ay règles ba pare da koy accepté waaye xanaa ñun demuñu woon deux mille dix-neuf deux mille dix-neuf dàqu mm-hmm. da ngeen gerew li ngeen di wax da ngeen ko waxoon. mais bon mais doo defal nànk rek mais loolu discours loolu ma ne mais boo déggee discours boobu noonu yéen hmm? politique yi yaa leen koy yaa leen koy que bu bu ko waxee rek am ngay personne yoo leen visé est que ñun dañuy yëkkati ne par force dañu ma war a bokk bu ñu sosal mais boobu ngeen bokk de mais bëgg nañu mais bañ nañ ko. par exemple laa mu jógee France mu jógee France ñëw def fi. non président seen permanence bi la la waxoon. dañu bokk wala ñu dem taal li nga xamante ne moo di. mooy urne yeeg yooyu. oui attends bàyyil ma wax ni mu wax. parce que on savait déjà que les élections étaient truquées du ñu dem. baaxul mais on a préféré ne bu ñu dem mais ñoom ñoo daje même ñi nga xam ne am nañu parrainage <coughs> ñoo signé la pétition des le. le communiqué de 25 là da ngeen ko fàtte ñu ne ñun ñi am parrain ak ñu demul parrain yëpp du ñu dem nañ leen empêcher élection yi mu jël avion ñëw mais wanoon toog këram mais ba gars yi demee ne bëggatuñ ko mu toog këram ne wote jiwuma mais ñun waxuñu ne par force ñuy bokk non non bu baaxul mën nañ ko xeex mais waxuñu ne par force duñ bokk par contre li taxoon ñuy bokk 2019 ba léegi mosu ci jóg on a fait tous les tribunaux du monde dañuy accepter loolu. Mhm. maintenant euh, li nga wax nag ci euh, problème mu li ci am nii mais li mooy li ma waxoon au départ rek ba ñu nee vingt cinq laa la ne l'objectif de Macky c'était pour que Karim waa ne participe pas à des élections tant qu'il est loolu moo am ñun d'accord nañ ci ba pare yi mu boole ci wax ko dinaa leen réduire à la plus simple expression mhm. mu jël ñenn ñi jënd def ci poosam wante bon loolu mooy système démocratique bi mais système démocratique justice bi ci la bokk presse bi ci la bokk mais presse bi ak justice bi dañuy jekki-jekki am ay déviations il y a eu sur les juges il y a eu des déviations dans la presse il y a eu dans la société civile parce que yàlla ni mu ñu bind ñun pour ñu toppee ko noonu toppee wuñ ko noonu wante bon mën nañu bañ a topp Macky Sall wala Ablaye wala Senghor ko moom fa président ah, déviation yooyu nag mhm. moo tax affaire yi jafe mais bu fekkoon ne amoon nañu d'ailleurs g gis naa benn un excellent xaw ma un excellent jugement de de Fadel Barro mu ne le Sénégal a un problème de citoyen dafa def déclic sans bopp ba léegi donc wax nga léegi société civile mais la yow la woon mais la société civile c'est le citoyen donc loolu yëpp bu ñu ko boolee bu ñu ko boolewul ba mu baax ñu am euh, comment il s'appelle une démocratie pure marche hmm. notre démocratie euh, a connu du recul d'accord mais président boo gisee gi discours gars yi di wax noonu maanaam ñu organiser une élection inclusive ah. parce que euh, ñi koy dif politiciens yi koy véhiculer parce que ñoom dañu am ay cibles mooy cibles yi mooy lan mooy Ousmane Sonko bokk Karim Wade bokk ak ki nga xamante moo di Khalifa Sall bokk attends ne ñun bi ñuy wax dañu war a bokk ak bokk yu kenn xeexul ak ñun. non man actuellement la actuellement nii la wax quoi mais avantage la. loolu dama ne yow yow lan ma ne. Mhm. ñoom seen avantage la ñoom tey ñoom dañu ne woon du ñu ànd ak ñun ñun baaxuñu ñun dañu nekk en complot contre Macky Sall vous êtes là témoin depuis 2012 moo leen ngi wax bi ngeen demee nag bi ñu demee nag ñeen ñi demee ba xam ne ñun nous sommes importants nous sommes incontournables. mais moo ñu dal ci élection yi on avait voulu construire benn coalition à trois mu yàqu mais dabaatuñu est-ce que dabaatuñu dañu dabaat pour arriver à ce résultat c'est nous qui fait le gis nga ñun dañuy nekk parti boo xam ne du parti buy song lu la neex dañuy am âme dañuy am âme dañuy am ADN dañuy am vécu dañuy am histoire saa yu ñu jàddee suñu histoire rek suñu parti soox dignité justice fraternité donc ñun kenn àndul ak ñun parce que dañu bëgg ànd ak ñun ñun nit ñi dañu bëgg ñu ànd ak ñoom pour dooleel leen ca la ñuy wut mais ñun biñ ci nekkee di ko 2012 ba 2000 da nga ko ànd ak ñun damay laaj non seulement ànduñu ñun mais ñi àndoon ak ñun sax jiite xeex. gars yi dañ jàpp ne yéen da ngeen di maanaam da ngeen di yuuxu ci kaw euh, maanaam li ci suuf. waaw mais euh, léegi nag fa kan nga gis léegi yaa ngi ne ñu ngi naan ñu ngi def dialogue de la dernière chance. mais le dialogue le dialogue mais ñun ñoo ko indi ñun ñun ñoo tax dialogue bi am am d'accord parce que ñun ñoo ko acté euh, en en en en octobre 2019 sur l'audience quand le président Wade est allé voir le président Macky Sall mm-hmm. ñu signé un comité un communiqué conjoint pour wax ne dañuy dem vers un dialogue national dinañu examiner le code électoral la démocratie Euh, euh, euh, comment il s'appelle l'opposition et son et son chef et même la politique de la gestion gazière et pétrolière communiqué la conjoint signé par les deux parties waaw ñun dinañu convoqué loolu am ko ba pare de du ñuy ñëw non mais ñi woon ne dañuy ñëw léegi lu ñuy demandé lu ñuy demandé <laughs> du dialogue mais ngoonte da ngay d' accord dialogue de la dernière chance. d' accord maa ngi ci côté dialogue boobu noonu jël dialogue boobu def ko genre euh, opportunité bu ñu war a saisir dañ ko war a institutionnaliser c'est-à-dire qu'on doit dire que yaa xam koo mun ci doon boo nekkee président de la République du Sénégal tu as l'obligation d'organiser deux fois par année un dialogue avec l'ensemble des loolu bu ñu ko bindoon. Mhm. ñu dugal ko ci constitution bi. Mhm. léegi nag ki nga xamante ne dañ la wookaay dialogue nga ne ñëwuma amul kenn ku am sañ-sañ fekk la foofu noonu. xëcc nga ñëw. voilà xëcc la pour dugal la. loolu mooy wax ci mais quand même dafa doon lu nga xamante ne lépp lu ay nit bokk dañ koy waxtaane dañ koy waxtaane léegi bu ñu ko institutionnaliser ñu ne il au moins deux fois par année un dialogue national bu ñuy organiser ce sera euh, les gouvernants ak yeneen parti yëpp waxuma politiciens yi kese ah parce que soo jëlee politiciens yi aussi li may wax la politiciens yi bari wuñu ñu ngi ñu recensé bu yàggul ñu dépassé dix huit millions d' habitants. Mhm. boo dajalee woon l' ensemble des sénégalais yi détenir ay cartes. bokk ci par exemple parti politique lu tuuti lay doon. bariwuñu donc ñoom li ñuy def pour xeet bi la donc xeet bi aussi il faut que ñu koy bàyyi xel ñi nga xamante ne aussi dafa am président ñu mu tudd léegi ñoo xamante ne man. jeune ne les comprends plus muy société civile société civile moo amul Sénégal société civile tour bi am na fi ay woote am na fi soo jëlee Africa Jom Center nekkul euh, benn organisation partie civile mais c'est un démembrement du Pastef ci lu leer la. déedwaay. non ça je l'assume je le dis je l'assume parce que on ne peut pas comprendre. quelqu'un ku nga xamante ne tu as ton langage un langage apocalyptique incendiaire presque des imprécations vis-à-vis de ce que vit le Sénégal Sénégal bii ñu nekk nii nekkul un Sénégal de tension pourtant ki ngay def ki ngay ki ngay def loolu euh, mu di Alioune Tine pareeguma pareeguma même discours la doon tenir en 2012 nee boo demee Amnesty International mais Amnesty International position yi ñuy jël et tout la mais musuloo gis pas Amnesty International mbaa ñii ñëpp am kan moo ci condamné par exemple quand on a attaqué le bus à Yaraxla est-ce que gis nga loolu Alioune Tine génn def na si Alioune Tine si Twitter am condamné na ko doucement kañ nga kan nga ci gis ci ñooñu ñëpp mu taxaw xeex xeex bi ñu waroon a xeex bi ñu lakkee université bi nii yaa ngi dégg donc sorti bu ñu génn c'est une sortie bu nga xamante ne dafay am une coloration politique mais am na exception mais su ma ko tuddee ñu ne dañu nekk dafa sama xarit la mbaa sama sama waay la ainsi de suite mais quand tu prends le cas de le cas de Senghane Senghane Senghor bu nekk bu nekk soo ko dégloo di nga xam ne kii nii li ñu ko doon doyee mais mu ngi ci d'accord merci alors loolu tax man nii la société civile la bi nekkoon Sénégal te ñu xamoon ko ci ay jamono nekkatul société civile boobu moom moo am Sénégal société civile boobu dafa disparaître. mais mais d' accord merci beaucoup merci beaucoup. maa ngi ñëwaat si professeur maa ngi ñëw maa ngi ñëwaat léegi si léegi léegi professeur. mais société <laughs> civile boobu noonu Mame Goor. Mm. société civile boobu noonu en comme ñu muy def ñu muy lim ay euh, Amnesty International Africa Jom Center bu maanaam euh, euh, doyen Alioune Tine. Mm. pour rendre discours yu ñu tenir nii mën nañu jàpp ne en 2011. Mm. ba ba 2012. même discours la ñoon tenir lu amul lu ñu yekkul ki nga xamante mooy le président Abdoulaye Wade ak ñoomu àndal ba tey euh, affaire yi moo changé rek gars yi di maanaam euh, féete nañ beneen boor bi ñoom daal ñi est-ce que jàpp nañ tamit euh, ñu nañ beneen ñu ne ñoom ñoo bon waaw man loolu dama lay dama lay confirmer parce que man ñun fii leen 2011 fekk mhm. am nañ aussi depuis 2007 depuis de ay années yu nekkoon nañ ay rédacteur en chef ay yooyu mhm, mhm. am nañ possibilité aussi di xool affaire yi ni muy évoluer mais euh, société civile su Ablaye Wade je pense que ñu ci bëri xam na ñu ci bëri dañ doon wax aussi même chose la doon wax. Mhm. Euh, euh, à tort ou raison ah. Mm -hmm. à tort raison dañ jàppoon ne ay M23 ak yooyu yëpp dañ doon xeex Ablaye Wade. Mhm. à tort ou à raison ñi fi nekkoon ci nguur gi aussi loolu lañ doon wax. Mhm. te même su Ablaye Wade sax euh, à raison. gis nañ ñu position yoo xam ne ni peut nit ñi doon doon ko doon jël hmm. Bourgi ma ma gis nga mi moom mi doon wax euh, barki dem de gis naa ko muy wax ci ci rajo bi hmm. moom lan la fi yàkkul <laughs> yàkkul ab Ablaye Wade ak yeneen ak yeneen hmm. Alioune mi muy wax nii euh, lan lan lan ko fi waxalul euh, vingt vingt trois juin fii la ñu fekk Euh, dem na ci hôpital dem na ci hôpital ak leneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mhm. donc même euh, la presse ñu ci bëri euh, dan dan naan presse bi euh, ay opposants lan ñii leen faral ak ñi leen faral. Mhm. mais je pense que c'est notre destin ah. bien vrai que journaliste moom dafa war a def liggéeyam c'est-à-dire bu waree def compte rendu mu def compte rendu bu waree def analyse. mu def analyse journaliste sax man jàpp naa ne li ñuy wax neutralité euh, pratiquement ça ce n'est ce n'est même pas possible booy xool neutralité même objectivité en journalisme dan naa la c'est un idéal on tend vers l'objectivité mmh. mais c'est un idéal mais lan la laaj ci journaliste il faut être honnête quand il faut être honnête ne pas faire de mélange de genre être sérieux ne pas porter le combat d'autrui. waaw bon <laughs> euh, le combat d'autrui peut-être am na ñoo xam ne nii dañuy tuddee le combat d'autrui mm-hmm. dañuy def jàpp ne yow da ngay porter combat d'autrui peut mais peut-être ñu ci bari dañ ci jàpp ne il il il il com il combattent pour des principes. Mm-hmm. ñoom jàppuñu combat kenn ay que ça soit l'opposition que ça soit le mm-hmm. pouvoir parce que yi. bu ñu demee yow yow métier bi ngay métier bi ngay liggéey. ci ngeen ci la ci ngay ci ngay nekkal ci lan la fekkoon ci lan lay bàyyi. Mhm. amul benn loo xam ne ni ñu mën na la ko apporter sa liggéey. Mhm. même loo ci am ëllëg man loolu laa jàpp loo ci am ëllëg sa mérite la war a doon. waaye du fekk ab opposant bu ñu war a ñëw. wala ab président boo xam ne moo fi nekk. Mhm. du moom moo la koy moo la koy may. je pense que aussi bu ñu bu ñu liggéey. c'est l'idéal ça. ñu man man man loolu man man man idéal boobu laa am. ci ci mhm. journalisme. Mhm. Mhm. man dama jàpp ne man li ma jàng. mais li loolu la. li ma dem di ko jàng. dama koo jàng comme ni nga jàngee droit. Euh, ma la ma ñam laal naa tuuti ci ma ma ma xam ne lii ci laay liggéey. et puis jeex na quoi. amul kenn koo xam ne ni war na ma ci man a apporter dara. bu fekkee nag li ma mérité ñu jox ma ko man je sais je prends mais amul opposant buy ñëw wala président bu fi nekk boo xam ne ni war na ma apporter dara. li ci des nag nga xam ne c'est l'état mhm. loo ci man di am bu la ko say sa sa say moyen euh, intellectuel ak professionnel bu la ko mayee waaw ah, tu tu ça bien vrai que am na aussi ay journalistes yoo xam ne ni ils son partisans et la l'assument mhm. loolu aussi booy xool la la la presse l'histoire de la presse c'est c'est une question d'engagement ah booy xool sax Euh, presque ci engagement la jógee booy xooy ay ñoom ña les les les les premiers journalistes booy xool ñu ci bëri ay écrivains lañ woon. Mhm. ay c'est une presse d'engagement il luttait pour une cause bien déterminée. mais loo xam-xam ak loo far-far New York Times dañoo far. Mhm. Libération dañoo far. la presse française foo gis am na fu mu far. Mhm. mais nag tu peux partisan. tout en étant professionnel man loolu laa jàpp. d' accord loolu c' est merci merci beaucoup. Euh, laa ci bëggoon a mm-hmm. man sax euh, waxuma pour pour terminer si thème mm-hmm. boobu noonu ñu ngi président Doudou Wade. waaw je voudrais juste dire que. Mm-hmm. quand on a à supporter ce que fait par exemple euh, société civile bii nii ak organisation yi ko téye. mooy que. cest dire que dañuy gis lu ñu war a wax du ñu ko wax. quand il faut condamner il faut condamner quel que soit l'auteur de ce qui s'est passé. booy condamné da ngay condamné mais munuloo yéen ñaar ngeen nekk jàkkaarloo kii bu defee lu bon ma dal ci kawam kii bu defee lu bon ma ne pat cest à loolu la ñuy wax il faudrait que les gens ñu accepter que ce qui s'est passé dans ce pays hmm. léegi rek ñëw ci li nga xamante moo di sunu euh, euh, dernier thème bi mu di parti démocratique sénégalais parce que gis nañu li nga xamante moo di 2019 bokkuñu woon tey si aljuma ji sax euh, président dem ngeen déposé li nga xamante ne seen candidature fële ci conseil constitutionnel kon mën nañ jàpp parti démocratique Sénégal cette fois ci dina bokk ci course bi te ki nga xamante moom ngeen maanaam teg tab teg ci bopp bi pour mu war a nekk war a jiite li nga xamante moo di tur bi mu di Karim Wade bi dina ñëw est dina agsi si Ndakaaru dama bëgg avant avant loolu xam nga yenn saa yi dañuy wax ay wax yoo xam dañ ko bëgg rek bàyyi ko noonu te pour faisant comparer le discours de 2010 2011 et 2012 est très différent nee nga sax Alioune demoon na di xeex ba ñu demoon loxoom wala mu dem hôpital. demoon hôpital tey léegi génnuñu seen kër. ils n'ont mené aucune bataille par rapport à 2010 2011 aucune manifestation. Ah, est-ce que permettre nañ leen ko tamit. <laughs> non attends non. ils ont tenu une réunion à Brotier ñu génn leen fa ne kaay leen ci mbedd par force. Mm-hmm. yéen a ko couvrir. Mm-hmm. il faut il ne faut pas que ñu fàtte suñu suñu xel bu leen ko këf. waaw c'est que Wade avait permis ça quoi. non non ça aussi mooy. non accepté attends attends dama ne. gars yi dañuy nekk réunion ci biir Daniel Brottier salle fermée privée. booy yi fekk na leen feneen wax amul caaxaan génn leen ci biti. Ah, génn leen dàq leen génn leen ñu marché ñoo ñoo fekk dañoo bëri ci ne génn leen xeex bi xeex bi ci mbedd bi la le rôle joué par la France. et l'Union européenne. avec ses multiples déclarations de la Légion d'honneur fii dañu ko fàtte. Mhm. lu ñuy defal France Alioune Tine Macky Sall nous avions été ensemble je mhm. pense à la réunion au Sénat est-ce que le Sénat français nous avait invités. du mhm. yaa le Sénat français président wa nekkul sax France. ensuite quel lien entre l'Assemblée et le Sénat bu ñuy invité Macky yéen a nga fa. Mm-hmm, mm-hmm. légende lu mu wax yéen a ngi taxaw. Mm-hmm. je n'ai été ni l'organisateur nii l'initiateur de cette encore bi ngeen ñëwee da ngeen ko bind. <laughs> non toog am nañu ko bindoon. oui oui mais mais ma ne maa ngi toog kañ <laughs> da ngeen ko organiser biñ koy bi muy débrouiller assemblée nationale pour ñu recevoir ko man maa ngi toog mu toog bataille bu chaude la ñu def foofu maa nga fa. moi je suis un acteur j'ai vécu. d'accord alors donc loolu amul mais ma wax la bi ci des. qu'est-ce que les commerçants n'ont pas fait ba pare avoué ko nous avons augmenté les prix pendant deux ans pour Wade jóge fii wala leen ko fàtte l'augmentation était factice elle n'était pas réelle les gens se sont enrichis sur le dos sénégalais pour cormboire da ngeen ko fàtte mais xanaa kon même même même situation moo moo moo reproduire. non waxuma ne non attends waxuma ne situation sama situation laay wax. mais mais léegi boo defee comparaison situation boobu ak situation bii est-ce que du du nekk pareil. ma ne bu doon pareil ma ne ma yàlla mu dem dama ne du pareil kenn yokk ko luñ fi yokk rek étranger la jógal wala guerre am na kuñ ko ji mais ñii ñi ko yokk ñoo ñëw ci télévision bi ci Pape Alé Niang ne ñun ñoo yokk pour mu daanu émission laa lay wax man. donc ma dépassé loolu moo demoon c'est pas la même chose donc li mu wax ci société civile nous n'avons pas la même ardeur ni le même sens de combativité aujourd'hui contre le régime de Macky et ça se comprend aussi parce que le nombre de journalistes et de machins qui sont autour du pouvoir ñoo gën a bari alors un journaliste il, est normal dafay far les journalistes sénégalais en 57 58 59 ont été parmi les piliers de la lutte pour l'indépendance mmh. journaliste d'opinion et journaliste politique loolu kay lu am la d'accord nañ ci am nañ droit far ñoo ci PDS par contre par contre li ñu amul mooy def propagande ci biir émission yi ci partout muy fay loolu xëy na loi bi dina ko génne mais loolu yéen ngi koy gis bés bu nekk donc ce n'est pas la même chose donc ñun nous avons été combattus et sur le plan interne et sur le plan externe am na loo xam ne am na ñu ko fekkee avec l'Union européenne on a eu des batailles extrêmement chaudes avec l'ambassade de l'Allemagne parce que l'Europe n'était pas d'accord avec nous les États-Unis d'ailleurs le président l'a remarquablement relevé de défi des Américains parce que Wade mais maintenant je passe sur ça donc du benn alors li nga wax ci PDS nga ne ndax dina bokk je pense que léegi si de l'idée générale personne ne se pose la question tout est possible Mm-hmm. parce que demain appartient à Dieu mais léegi ñi nous ne sommes pas ñun ñii ñëpp nous ne sommes pas dans la même situation où nous étions en mm-hmm. dafa mel ni c'est acté wax na léegi ci problème dialogue bi mais même dans les dispositions législatives nous n'avons pas été amnistiés notre bataille à abouti au moins à la suppression la suppression de la CREI et l'acceptation de principe de réviser le procès mm-hmm. am na wala amoon mais ngoonte bon ñun nous sommes des démocrates dañuy gëm loolu pour dugg ci jeu politique bi jeu politique bi effectivement ñu ngi ciy dugg euh, def nañ suñu parrainage. Mm-hmm. te déposé ngeen seen seen candidat fa conseil constitutionnel kay. ah tey la woon vendredi yaa ngi ma mm-hmm. convoqué bi 5 heures pour ñu commencer émission ba léegi génn ma fi. Mm-hmm. tey monsieur damay damay jot communiqué na fi jàll yi dama koy jot. Ah, waaw oui oui mais man jotuma. Mhm. moo tax man tu es plus informé que moi sur cette question. Mhm. te man du ma tontu lu ma xamul. Mhm. mais daal c' était pour aujourd'hui d' accord def ngeen def ngeen def ngeen def ngeen pas boobu noonu mu des beneen pas mooy le retour de Karim Wade. waaw ah, loolu suñu calendrier la ñun. xam nga on avait un calendrier aujourd'hui pour faire une émission avec Adja <laughs> ce que bi ngeen di ñoo xamoon ngeen dina leen fekk mais ko fi dem na. aduna bi noonu lay demee. nous sommes dans le monde qui bouge. d'accord ku nekk ak sa programme Adja man woo na ma mais jotuma mais xaw ma sax dëgg info mais bi ma ñëwee fii laa xam ne dem na. am na leneen beneen soxla bu ma am ñun suñu calendrier ñoo koy gérer suñu bopp. d'accord ñoo koy defaral suñu bopp. ñoo koy tëggal suñu bopp parce que militaires yi ñooy yuuxu fépp Karim Wade Karim Wade Karim Wade ñëpp nañu ne Karim Wade Karim Wade moo tax ñu bëggoon comme nga toog fii rek ñu bëggoon xam mais benn tontu bi laay tontu damay alhamdulilah mm. bu jëkk ba buñ la ko waxee nga ciipatu intéressé wu la woon c'était un homme à abattre son emprisonnement ou bien c'était une demande sociale. Mhm. mais boo demee ba yàkkamti ko bu ñëw pour nga jël sa micro seeti ko. ci sant suñu borom. <laughs> merci beaucoup euh, euh président. donc mu ngi ñëw ma ñëw ma ñëw euh, euh, ma ñëw ci ci avec avec grand ma ñëw si professeur. professeur ñu wax Karim Wade président gis nga déroul déroul mu exposé léegi léegi nii président am na tamit ñu ngi koy ñu ngi koy lamlamee ne Karim Wade euh, maanaam dafa war a man joxe fay amende euh, laataa muy bokk ci élection présidentielle yi maanaam 138 milliards. est-ce que tamit loolu mun na euh, loolu mën nga ñu expliquer est-ce que loolu mën na nekk gàllankoor pour mu nekk candidat. waaw parce que léegi li ma wax mu ci wàllu créance créance mooy bor boo xamante ne nit daf la ko amel. Mm-hmm. nga ameel nguur mbaa nga ameel sa nattaango. Mm-hmm. dañu lay wax ni la. pour mu mun laa wàcc il faut que loolu noonu nga fay ko mbaa mhm. borom yëf yi baal la ko mhm. ñu wax waxu cent trente huit milliards yoo xamante ne dañ ko yoon moo ko tegoon pour mu fay ko Sénégal mhm. léegi dans le principe bu fekkee ne da ngay dem conseil constitutionnel da nga war a yóbbu benn cutis bu nga xamante ne da nga naan par exemple sama candidature man euh, je suis un homme d'affaires Euh, am na ak ay kër nangamag naa mais toppuñu ma dara Sénégal topp ma dara. Mhm. loolu dafa bokk ci li nga xamante ne da nga ko war a. joxe mhm. dina ko joxe du ko joxe kes ki qui a été retenu parce que aussi nguur moom moom moom yëfama. Ah. Mhm. nguur moom moom moom mun nañu la defal ay dispositions yu nga xamante ni li nga waroon a fay doo ko fay mbaa doo fay lu ni toll. c'est la raison pour laquelle ma wax ni ça c'est un grand point d'interrogation pour ñun ñëpp mais dans le principe kii war a dem élection présidentielle dafa war a am un quitus pour woni ni amee lu ma réew mi dara mhm. loolu moom mooy le principe qu'est-ce qui va se passer on va voir avec le temps ak li nga xamante ne mooy doon tànk yi nga xamante ne de part ñu ngi koy dox d'accord euh, euh, Mame Goor Karim Wade presque gij na fi parce que depuis 2016 Eh, est-ce que mu war a ñëw bokkaat ci li nga xam ne moo di géopolitique bi est-ce que jàppoon yi maanaam bu ñëwaatee dina perdre terrain euh, maanaam gars yi maanaam raw nañ ko si maanaam si si champ politique bi. waaw man euh, aussi euh, question boobu nga posé man dama koy posé wu ndax politique moom présence da ci am solo man nag man mu ñoom ñooy ñoom président Doudou Wade ak waa PDS ñoom yàgg nañ ci politique. Mm-hmm. yàgg nañ ci stratégie. mais man comprendre ma man stratégie Karim Wade franchement man man mënuma comprendre quoi parce que man dama jàpp ne boo bëggee dara di nga di nga ciy dox di nga ci dox mais dama gisul man mu dox ci man parce que ñun aussi bu ñuy analyser dañuy analyser ay pas yu nit di poser euh, man li euh, li dernier acte bi ma gis ci moom mooy photo bi mu génne woon mm-hmm. photo bi toog est-ce que il est prêt man nga analyser photo bi nag mm-hmm. man nga ne kii il est en forme il est prêt. Mhm. mi ngi waaj a ñëw. Euh, te loolu yëpp ay ay ay ay ay supposition ngay def donc loolu mën nga ko analyse loolu mooy acte mais dama jàpp ne moom même bu fekkee nekk na bitim réew euh, ba pare bëgg a nekk candidat bëgg a nekk président de la république du Sénégal am na ay act yoo xam ne ni war na ko posé même bu bu bu waxul mën na bind mais gisuma gisuma gisu gisuma lool. Euh, et puis à quelque quelques mois de la présidentielle nga toog léegi nit ñi xamuñu da ngay ñëw xamuñu du doo ñëw bien vrai que ñi c'est c'est c'est c'est privé ñoom ñoom ñoo xam kañ lay ñëw ak kañ la kañ la ñëw. Mm-hmm. mais est-ce que diggante bi ay question laay posé est-ce que diggante bi muy ñëw ak bi pré euh, présidentielle bi da am est-ce que dara xaj na fi est-ce que euh, moo mën na fee dem commencer fi campagne euh, gérer yenn détails yi ba après yenn présence yi te dama jàpp ne. parce que li ñuy wax dans nous sommes dans un monde de disruption de de disruption quoi c'est un monde brutalement ouvert ak internet ak nangam nangam dugg fi génn fii même dañuy wax village planétaire mais man naa jàpp ne c'est une case quoi hmm. mais lan moo ko tere te dama koy poser question bi euh, président Doudou Wade hmm. lan moo ko tere di wax ak nit ñi hmm. di wax ak sénégalais yi di wax ak électeurs yi au delà des électeurs am na ñoo xam ne ni fonk nañ ko euh, war nañ ko mën a dégg war nañ ko mën a gis de temps en temps de temps en temps mhm. li tax deful lool mhm. je pense que loolu aussi euh, bu bu ma ci euh, leeraloon mhm. ma gën a mën a def analyse ndax <laughs> Karim Wade bëgg naa nekk président de la république wala bëggut a nekk président de la république yoo xam naa président Doudou Wade dina ko dina ko leeral mooy interrogation bi nga xamante ne Mame Gour posé na ko président est-ce que tamit beneen question bi ma ci dolli mooy di euh, problème de nationalité bi ñoon wax ñu ngi ko doon lam-laamee est-ce que boobu fecc na boo parce que ñu wax borom double nationalité la am muy buuf bu France ak bu Sénégal. xam nga d'abord loolu yëpp loi bi réglé na ko non seulement loi bi réglé na ko mais yenn saa yi dafay ma ay amalgame ce débat-là a été posé par bu Moussa Diop. je pense que yéen ñëpp dégg ngeen ko. effectivement ak man ak moom. Mhm. d'abord lecture rek lecture. lecture réelle la amuloon ci texte bi il parlait des enfants nés en France alors qu'on y parlait des enfants qui ne sont pas nés en France c'est-à-dire lecture dama ko mujj wax ne ko ma ne ko on a employé la forme négative les enfants qui ne son pas nés en France débat boobu tëj na ensuite débat bu nekk daf koy am lu ko yëkkati te Moussa situation wan na leen ne débat bi am na leen lu mu jógoon gis nga nitu politique dañu bari ay façon bu ñu bëgg a feeñe ak bu ñu defee 369 candidats la ñu anañu on a eu 369 candidats nag anañu. 42 ñu déposé xam nga nit 43 ñu déposé position même ñi déposé day wàññeeku. Mhm. te bu ñu commencé ñetti fan ñetti fanu campagne am na ñoo xam ne dañuy taxaw seen oto mooy paan du ñu am essence <laughs> du ñu mën a campagne gore. présidence de la République dañ ko àgg foo xam ne fii non seulement am na ku def benn kër benn émission mu ne même parrainage bi dañu war a fay on ne veut pas que ça soit un problème sensible un problème d'argent mais mënuñu ko fooye quand on a 369 candidats au Sénégal aujourd'hui pour aspirer à diriger ce pays mais même équipe bu nawetaan mënu ko am ça devient trop c'est pourquoi bu bari ay amalgam amalkaa bi yooyu la ñu war a moom mais pourquoi euh, comme ni euh, euh, bu maam góor bi mais ci la non balaa ma ci ñëw damay ñëw ci loolu alors maintenant euh, professeur Top tontu na léegi ci problème mu amende ah, amende bi amende bi mais amende bi non seulement texte bi rek la woon na ko parce que texte bi waxul ñu joxe cutis le mot cutis ci pas dans la loi la loi bi dafa wax ne nañuy def déclaration d'honneur déclaration d'honneur yaa koy bindal sa bopp ne tu en règle avec la législation fiscale ren nag conseil constitutionnel dafa dafa nga sax gën a sori dafa def modèle bi modèle lettre bi la bind def ko ci je sous-signe déclaration de né à fils de et de domicilié à numéro titulaire carte d'identité numéro candidat à l'élection présidentielle du 25 février je déclare sur l'honneur être en règle par rapport à la législation fiscale de la République du Sénégal bu doon amende bi xam nga lu ñuy wax législation judiciaire moonte bu concerné wu ko ka am ka ñu amee ak ka ñu ameelul ak kiy fay ak ku fayul kooku beneen problème la mais fii constitution bi. Mhm. conseil constitutionnel ak direction des élections daf ko indil guide pratique pour kenn bañ a juum. mu ngi fii donc amul cutis maintenant beneen déclaration bi c'est sur la nationalité gis nga nationalité bi ñu bari dañ ne 2012 la xew dañu juum c'est avant le code de 92 dans les discussions la première proposition est sortie de Mamadou Diop d'ailleurs Alioune Badara Cissé yàlla na ko yàlla xaree aljana def na ci benn affaire bu compliqué keroog parce que moo tax réunion bi taxaw parce que dafa tiit texte bi daf ko jaaxal ñu fexe ba réunion bi taxaw mu dem laaj ko Abdoulaye Abdoulaye ne ko loolu pare naaj bu yàgg ça ne me concerne là pas parce que moi j'ai fait une agrégation étrangère au lieu de française mais ensuite élection yi passé conseil constitutionnel def na décision ci dossier bi wax ne nationalité française Euh, d'abord sax bu fekkee ne Karim Wade ba 2019 bii amoon na nationalité française wala sax 2010 ba 2012 jàppal ne ambassadeur de France bi fi nekkoon matul xamul tax moom moo surveillé les français fii te dañuy tere français mhm. de nationalité française nga nekk dans un gouvernement étranger d'accord c'est-à-dire que wax ji mhm. mooy bari rek mhm. donc loolu amuñu problème problème mu ñëw wax na dëgg wax na dëgg mais pourtant. waxtaan ak sénégalais yi. Euh, non mais mu ngi waxtaan ak sénégalais yi. ñu koy gis de temps en temps jógee di waxtaan ak sénégalais te awul xam nga li tax ñun ñu topp ko léegi nii mais bi mu fi jógee dafa salte woon dafa tilimoon yéen ñëpp kenn bugg leen ko daaw leen sax poser question si leen sax. waay ah kay. waaw ah, non attends rek may ma tuuti rek mais constaté nañ ko ñun ñëpp fi la ñu <laughs> nekk ñun ñoo fexe ba mu set. ñun ñoo xeex ay xeex ba mu rafet de jour en jour tribunal en tribunal bay ñëpp ne ay la de dafa mel ni moom la lañ doon ut doomu Abdoulaye Wade Diagne kenn bugg ko ndekete moom lañ doon ut <laughs> bon comme loolu nag mu ngi ci nit ñi ba nit ñi am na lu ci nit ñi ama ah. maam góor tu dois constater que mm-hmm. Kamerun Wade sur le plan de l'acceptation ah, c'est, c'est par assez, le public ça c'est clair ah, ça, ça a changé l'image a changé xam nga kan moo ñu koy laaj xam nga kan moo les gens du pouvoir ñi nga xam ne dañuy xaar xamaguñu fu ñu jëm. Mhm. ñoo naan mais seen booy bi kañ lay ñëw. <laughs> parce que nag on se connaît aussi ah. xamante nañu. te mu ngi wax ak ñëpp à l'heure actuelle je pense que ñu bari xam nañ ne am na ñu bari bari bari wax est-ce que waxaloo <laughs> nga yow. non nga doon parce que je connais je connais l'homme je connais la qualité de son travail Mm-hmm. je connais son orientation xam naa la mm-hmm. donc amul kenn koo xam ne kii ci réew mi mën nga jariñ dara te du toog di waxee donc aujourd'hui mm-hmm. Karim Wade li mu daan wax si six moom la wax tey ci benn fan d'accord président merci beaucoup président ana ana président Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade mu ngi fi mu ngi Dakar mu ngi Dakar mu ngi Dakar mu ngi Dakar depuis mu ñëwee ci élection yi génn na dem pare rek mais yàggu fa d'accord depuis les élections de février mu ngi d'accord merci beaucoup professeur Euh, le dernier mot maa ngi lay daa mais waxtu bi daa xam nañu def nañ presque une heure trente trente une minutes. waaw dafa am lu ma ñor nag loo xamante ne fépp fu ma dem dama koy ñaan sax. Mm-hmm. d' ailleurs envoyé naa ko Adja bi tey parce que bëggoon naa mu inscrire ci ci suñu ordre du jour tey euh, wax ji nga xamante ne moom mooy attaque suñu diine ak suñu stabilité interne c'est-à-dire que suñu suñu suñu suñu pas-pas. Mm-hmm. dama def benn sorti plusieurs am na fii nii wax naa ko fi ah. euh, gis nga naar yi nii ñuy wax ay frères musulmans ay qatare ay ñu ànd ak ñoom benn objectif kese la ñu am mooy nërmeel suñu tarixa yi benn objectif te bés bu demoon ba wax jooju wëlbatiku doon defante man bañu ma nekk un chef de guerre pour protéger sama yoonu aw il faudrait que ñu comprendre que ñoom fit wu ñu am ak détermination bu ñu am pour mun a dugg si ci biir réew mi nasaxal liggéey boobu nga xam ne moom la fi mag ñi defoon ñun am nañu détermination bu ëpp boobu pour jàkkaarloo ak ñoom ba loolu du am. Mhm. te incha allah du am. déclaration bi nga xamante ne moom la Saber Machou ou je sais pas quoi ces gens là nga xamante ne bon ay yàqkat la ñu def. ñii profitoo ci di jël ay articles yu ñu bindal seen bopp attribuer ko kenn ku bokk ci tarixa pour mu dal keneen ku ye beneen tarixa loolu yëpp ay manipulation la yëngaluñu xam nañ ne mënul déstabiliser sa pays là parce que le socle bi nga xamante ne moom moo téye cette société <coughs> moom mooy suñu diine ak ni ñu koy doxalee dem nañu ba nga xamante ne diine ak ceddo gi ñi nga xamante ne amuñu sax Euh, am amuñu nekkuñu sax ci lislaam mbaa ñu ngi nekk ci beneen ngëm ñun ñëpp dañoo booloo nekk benn famille <coughs> famille boo fa duggee waxuma la murit tijaan mais dafa am ay chrétien yoo xamante ne man ak ñoom ñoo bokk alors il faudrait que ñu arrêté arrêté bi moom mooy jéem a dugg si ci suñu biir ay Tariq Ramadan il n'a rien à faire ay Saber Machoum il n'a rien à faire li ci am nag benn appel bi may mujjee def mooy que ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jóg di dem man bu may jóg di dem Tivaouane li may fàttali sama bopp di ko fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk Seydi Hadji Malick nañuy jël xale yu ndaw yi ki gën a tuuti ki juddu ren nañ ko boot yóbbu ko mu dem Tivaouane xam lan mooy Tivaouane. d'accord dem tuubaa buy dem Touba naka def. Mhm. kii dem Ndiassane buy dem Ndiassane naka def parce que noon yi nga xamante ne seen objectif principal mooy nërmeel liggéeyu mag ñi fi jaar ci réew mi liñ fi defoon ñoom ñu ngi ci suñu biir nekkuñu ay naar yu weex ay sénégalais la ñu ñuul kukk yu mel ni ñun mais il ne faudrait pas que ñu bàyyi leen ñu mun a egg foofu noonu. d'accord cet appel là. Mhm. képp ku ma invité dinaa la wax ne la boo ma ci posé question dinaa ci wax. boo ma ci posé wul question dinaa ci wax parce que moo ma gën a ñor lépp lu dul loolu. d'accord voilà merci beaucoup euh, professeur euh, président maa ngi ñuy suñu après di nga nga nga terminé waale ko. Ah. Euh, ah, professeur xam nga. maa ngi gars yi dañuy doon wax l'occasion fait le laron mais fii l'occasion ne fait pas le larron l'occasion fait doit faire de bienfaiteur. lu hmm. ko amoon maa ngi lay maa ngi lay remercier ci intervention bi nga def. Mhm. maa ngi saluer l'intervention pertinente de Abdou Aziz Kébé mm-hmm. ci li ci bind ak euh, yeneen intellectuels yi nga xam ne euh, Chérif euh, ñoom ki nekk ki Kouaté ñoom Imam Kouaté ñooñu ñëpp xam nga ñun dañu bëgg di dunde façon bi ñeneen di dunde te bokkuñu dundin et ci nga xam ne suñu réew ñun suñu réew ñun bañ ko commencé tabax avant l'indépendance même sous la colonisation dañu am une part spécifique bu ñu réserver à la religion notre constitution mësul mettre entre parenthèses la religion mësul nekk et la religion a été le pilier politique de la constitution de ce pays wax naa leen ne cinquante 1952 Serigne fàllu Mbacké xalif général bind na Abbas Gueye lettre ci ay disposition yuy jël pour le monde musulman notamment Sénégal si julli ja àjjuma heure bi ñu fay la ko mais daf ko bind gërëm ko moo taxoon suñu religion. Mhm. ñoom sax kilifa yi. sëñ Abdou. Mhm. mais wax naa ak assemblée bi. Mhm. bu leen yóbbul Abdoul Aziz Ndaw loi bu baaxul. na ngeen xool l'intérêt général. Mhm. wat mekom la. Mhm. pour te dire dañ ko ñun dañ ko assimiler moo tax may regretter parfois ñun ñu bañ a liir suñu mag ñi. Mhm. ñaari yoon ñaari législature ngi nii damay jënd ay deux cent cinquante exemplaires yónnee ko assemblée pour ñu dox ko jëm kenn du ko joxe kenn du ko liir il faut ñu gëm ne. d'accord il faut ñu traverser ñu daanoo culture mais il faut xam nga traversé nañu par pàccangaay yi par association yëpp demul. ñun ñëpp on a reculé loolu déet. on a beaucoup changé. Mhm. léegi boo demee par rapport à soixante dix quatre vingt quatre vingt dix boo demee stadium bi sa vingt quatre décembre mu kaabaro ba nga fay fekk. xam nga ko mhm. fa daan fekk. Roberto Torres. Aragon Palmieri ñoo daan ñëw dañ na. Mhm. maintenant dañu bëgg a par d' autres structures. su suñu intelligence ñoo ko war a bañ. aussi nag sëriñ si. ñoom tamit les autorités religieuses ñu jàppale ñu ci combat boo xam ne bi combat boobu combat intellectuel. merci beaucoup merci beaucoup président vraiment merci beaucoup merci beaucoup professeur. doyen le dernier mot. <laughs> Euh, maam nga vraiment kontaan dalal la ci plateau bi. waaw waaw di kontaan euh, ci plateau bi parce que je pense ça a été très instructif. xam-xam génn ci euh, et puis ñu jàng nañ ci lu bari. ah li may wax rek mooy espace public bi pour ñu pour mu riche pour mu nekk un espace public qui est mal occupé comme ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko seetloo euh, il faut une presse sérieuse il faut une presse digne de ce nom loolu moo tax même candidat élection élection yi war nañ ci seen programme yi ñu wax nu après nan la ñuy nan nan ban politique la ñuy def ci presse parce que presse aussi mënoo ne damay bàyyi presse euh, entreprise de presse euh, bàyyi ko noonu parce que presse la donc duma ko laal ni nga war amee ay programme faneen culturel ak yooyu nga war am programme presse est-ce que bo RTS day continuer di di mel ni muy mel est-ce que presse privée bi jaxasoo beeg yooyu day continuer di mel est-ce que médias publics yi aussi nañ leen yore woon en 1960 moom mooy continuer ba léegi je pense que loolu boo nekkee un candidat à la présidentielle war nga ci am ay ponk yu bari yoo xam da nga ko ciy teg pour ñu xam ndax affaire bi de continuer am du continuer parce que presse bu doxul tamit. Mhm. Euh, les les journalistes sont sont des acteurs. Mhm. dans l' espace euh, public. bu fekkee ñoom amuñu taxawaay bu bu nu war a am donc espace public bi dun xam ku ñuy invité duñ ku leen neex la ñuy jox micro il sont passifs parce que journaliste damay jàpp ne waroo passif. Mhm. il faut être actif. il faut information bi doo ko bàyyi nii rek lu ñëw rek ñu ne taskatu xibaar nga ngay tas. am na yoo xam ne nii da ngay toog bañ ko tas. Hmm. li mu fi wax nii ay ay attaque ay contre les les les guides yooyu mais ci ay journalistes lañ koy jaarale. Hmm. ci presse lañ koy jaarale ci média lañ koy jaarale muy médias sociaux wala muy yenn ay médias ay site en site wala site wala ay yeneen ak yeneen donc lool il faut ñu organiser ko te lu koy organiser nag état da ci am solo. Hmm. waxuñu censure mais nga organiser de telle sorte que euh, ñu xam kii kii euh, am na ay assises de la presse yu nekk en mais Sénégal am nañ ay mm, tradition dafa ay assise dafa ay texte waaye du duñ ko appliquer tant que nit koo xam ne nii pouvoir boo xam ne ñëwul fexe ko appliquer mhm. je que chaque jour dañ naan média fii euh, kii def na fii kii dox na tooxi doona mhm. média public média privé kenn du xam te jax soo bopp mhm. je pense ça n'arrange personne ça n'arrange personne vraiment kontaan naa Mame Goor di la remercier bu baax a baax di remercier aussi euh, professeur Ibrahima Ndiaye de même que le président euh, Doudou Wade nekkoon pré ancien président groupe parlementaire libéral et démocrate di ko jaajëfal bu baax boo xam ne jàng nañ ci li nga xamante ne mooy si invitation bi vraiment di ko remercier si xam-xam de même que professeur Ibrahima euh, wax ne di leen tamit remercier yéen ñi nga xamante yàlla nekkoon seen kër di saan bi nga xamante ne moo di Kër Jaraaf euh, xam naa di incha allah samedi bi di ñëw di ngeen fi di ngeen ki nga xamante ne moo di Adja Asu ak Adja bi tey voilà dinañ jox rendez-vous rek très prochainement incha ci 7TV